Sénégal dina neex ak naataange askan wi réew naat la jëm réew naat la jëm foo ding fa am ndam Cheikh Alassane askan wi dañ la askan wi cheikh bi dafa baax dafa yar dafa mat nit moo tax ñu ànd ak moom moo tax ñu lu naata réew mi rek ci lay dox nekkul ci fitna li ngay dong la ñu war li ngay dong

a jëf Cheikh Alassane Sène wóolu nañ la kon nag defaral réew mi si nag la jëf ki pare dafa wute ki parewul Cheikh Alassane Sène pare na ngir soppi réew mi tabal ko ci naataange di neexal réew mi lii daal askan mi soxla kuy defal réew mi Cheikh Alassane Sène nees kay defaraat Sénégal Cheikh Alassane Sène yaay defaraat Sénégal jàkka ji su ko defee ñu jéem waxtaan ak moom loolu daal moo ko yëkkati woon pour ku ko dimbali si li bëgg daal ñu ñaanal ko ñu jàppale ko. Ah, moom léegi man li ma wax. seeneen gi benn mhm. man maay kon bu fi ñëwee. ñëw di wut si si ay mbokkam. Mhm. ay mbokkam lu noo def lu dul jàppale la dañu kaa jàppale. Ah, dañu kaa jàppale ndax kuy jàppale jàmbur. Mhm. bu sa ñëwee si yow nga jàppale amul benn werante daana ko jàppale incha allah bi nu ma nee seen la sant man dama bég sax <laughs> dama ah? seeneen kay ku leen defal nun nga defal ku jàppale seeneen fii fii kar Ahmed Masséna Ahmed Massène Fary Diack Pathé Sène Fary Diack Faguiat Fary Diack fii la fii la mooy suuf si ku sant seen ñëwul fi bàkkul waaw bàkkul tëbal sa kaw li nga bëgg di am su sobee si mbooloo mi daa kaam si sunu ñaan incha sax wax ndax euh, gannaaw imam Fally ubbi na euh, te ku nekk dëkk bi xam na sama digganteeg euh, Fally ci li ñu séq lépp kon amatul sax droit man may wax ndax li ñu doon wax lépp wax na ko te dafa mel ni bokkatu bu tasee gestu la ay mbokk yu dajalañu Eh, ndax eh, ndar ci boppam gandar moo leen meññi kon ñëw ngi ci sa bërëb te itam teeru nan la eh, di ñaan yàlla li nga fiiwut wut yàlla taxawu la ci taxawu ci aussi askan wi ndax ñu ñëpp lu baax mooy tax a jóg ndax fii ku nekk xam xam na ma ci sama yëngatu sama yëngatu mooy lépp li nga xam day demul askan kanam lu demul askan kanam rek génn naa ca kon ñun ñaan yàlla lépp li nga xam ne ñu ngi fi sàkku yàlla jàppale ñu taxawuñu ba loolu ñu am ko fi bi yaay rasulullah sallallahu imaam dénk na la Cheikh Alassane Sène comme ni la dénk suñu bopp sama jaam bu ma ne yaa rabbi man ko yaa abdi lan nga bëgg mun ma nangu ma may ko man yàlla lu ka waaye ñaan mu may la nga gis léegi nga nga gis ëllëg waaye yàlla may na la ndax yàlla dafa gën nu ñaan ka li ma amee du jeex amu si soxla nun rek la ko fi tegal kon nanu ñaan te ku ko ñaanu mu mere la kon nanu ko ñaan te nun nag ñaan rek lan dëkke nun mooy suñu dund Seydina Mouhamed sangub sang di ñaan yàlla sunu jotaay bii yàlla bu nekk su mu jotaay yàlla na di jotaay yiw te yaakaar naa ni jotaay yiw la ndax dafa fekk si loo xamante ni si ndigalu imam bi nu nekk si chantier boo xam ne dañ koy liggéey jumaa ji maçon yaay ngoog di dóor bi ma sama rakk ji wax kii sama doomu ni jaaye bi ma ko waxee man ko amul benn problème ndax fii ko ñëw dina laa teral ndax wa dayfa akrimo isa ataakum wa akrimul karimi isofaakum e eh, kem lu tollool incha allahu rabbi daanu ko jàppale waaye nag dañoo ñaan moom mu dimbali ñu ndax dañu cinq chantier boo xamante ni nee nañu cinquante million la ñu waaj wax lu ñu waaye man dimbalee na ñu jël ku ñu jàppale rek incha allahu rabbi sunu imaam moom bu waxee rek lu mu wax lañoo ñoo def liñ naan ndigal jëfe mooy imaamu jumaa ji mooy imaamu jàkk ji kon lu mu wax rek incha allahu rabbi loolu la ñoo def te neen nu jàppale la nu jàppale la yow nag dama laa ñaan yàlla loo ñu mën dimbalee si liggéeyu jumaa ji incha allahu rabbi nga defal ni ko bi jaay seydina maam bi eh, lu juut yoon wax ji du man yàlla lu ci dëng ngeen jéggal ma ga xelu doomu aadama moom matul asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu jërë ngeen jëf ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bu tedd bi afdalul xalq sallallahu alayhi wa di leen nuyu imam di sant yàlla bu baax a baax ñu ci guet ci suñu biir yi ay mbokk biir yi ay soppe ci biir néegu yàlla bi imam yaa ngi fàttali léegi ci sa biir kàddu di wax ne fu ñu toll rek war nañu di ñaan sunu borom te daa bëgg ñu koy ñaan sama xel daal di dawaat ci aaya bi wa ida saalaka ibadi anni fa inni xaribun ujibu daawata daa ida daanni fal yastajibu li wal yuxminu bi la allahum yarshudun ma sama xel dem ci mu feddale li nga wax léegi ne ñun jaam yi ñaan rekk moo ñu war jëm ci sunu borom di la sant nag bu wér ginnaaw bu ñu sante Imam Faly ci bii rafetal jotaay bi jaare ko ci ma Madické di kenn ci ñun li ñuy ñaan yàlla rekk mooy yàlla yàlla wéral la yàggal sa taxawaay fii yàlla sàmm yéen yi am ci néegu yàlla bi yal na ko suñu borom def ndax lu ci waay def rek sadaxa jaariya la yal nañ ci yàlla dimbali tàbbal ci suñ loxo ci ndimbalam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam li ma lay wax nga ñaanal ma nag mooy ginnaaw suñu jëlee réew mi li ñu bëgg njëkk taxawal mooy dama am benn idée bu am solo parce que bëggatuma ñu jàpp kenn kuy napp fii ci dëkk bi wala ñu koy fitnaal ci biir ndox bi li ma bëgg njëkk def ndax problème dañ koy régler ak xel li ma bëgg njëkk def ci première semaine bi ma jëlee réew mi mooy dem Mauritanie waxtaan ak président de la République bu Mauritanie ñu def moratoire pendant douze mois le temps que ñuy am solution mais moratoire boo xamante ne kenn dootul jàpp benn doomu sénégalais bu dem ci biir géej bi di nappi mbaa ñu nangu sa gaal mbaa ñu nangu sa caax pandant douze mois nous trouverons des solutions pour que loolu la dootul xew ci diggante Mauritanie ak Sénégal mais pendant douze mois yi dañuy bàyyi nag Sénégalais yi ñuy napp ci haute maire bi sans benn incident di ci am loolu lu am solo la ba ca topp ñi ngi def benn fonds de solidarité bu mën a taxawal ci réew mi ñu bëri ñi ngi ci gox bii ñu war leen defal ndàmpaay te ndàmpuñu leen boobu ba léegi dinaa ci taxaw ci six mois yu njëkk yi ngir loolu lay mën a féete boor li ma lay ñaan rek mooy nga ñaanal ma yàlla ba suñu ta suñu réew mi su loxo yéene yi ñu am te yàlla rek tax ngir soppi suñu réew yàlla dimbali ñu ba ñu àgg ca loolu. beneen bi imam mooy le problème foncier. kër yi xaw na xaw na ndaw ñi ko bokk ci biir bëri nañu am naa ci solution. pour tabax ko en hauteur ñenn ñu ne am fii euh, seeni dëkkuwaay te maa ngi ko bëgg jaarale ci benn fonds bu ñuy wax waqf aw xaaf la tudd le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde mille milliards de dollars mooy tourner autour de ce fonds lii laa bëgg imam ma taxawal ci ci ci ci réew mi incha allahu taala euh, di la sant soo gisee ma indee problème mu Guet Ndar ndax lu ma ñor la gis naa embouchure bi ni nga xamante ne ñun yàlla daf ñu dimbali ñu bokk ci réew yi am embouchure mu wax ko ci alquran marajal bahrain yaltaqiyaan baynahuma barzaqul laa yabxiyaan loolu nag ñun dañu ko war a exploiter su fi amee amul ci yeneen i réew am na signal bu ñu suñu borom bëgg yónnee am na benn borom xam-xam physicien la bu belge dafa wax leer invisible boobu yàlla di wax leeru yonent bu tedd bi la sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla dolli jàmm ñu ngi lay sant bu wér ci dalal bi ci biir néegu yàlla bi di sant mbooloo mi la wër di ñaan yàlla e, lépp loo leen fi ñaan jëm ci réew mi ci jàmmu réew mi yal na ko sunu borom mottali ci barke gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam alxaqu min rabbikum fa man chaa fal yuhmin wa man chaa fal yakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ku sa doom ñëw ni la dama bëgg a falu nguur man lu tax bi duma ñaan bu faloo mën na falu <laughs> ah bis mooy bërëb bii nga nekk fii mooy xolu ndar fii mooy baatiri bi lu xew mas xew si àddina bi mag ñi fii la noo daje jublu penku tàllal loxo yàlla ñaan mu nangu kon ñëw nga fi kon wóolu nan ñëpp wóolu ni daanu ñaan te yàlla nangu na amul benn yàlla ndax yii nga fi wax léegi moo di bëggu Guet-Ndar Guet-Ndar amuñu lu di ndox mi amuñu beneen tool tool seen tool mooy géej gi bu ñàkkee géej fu nu dem ah? kon ku ñëw bëgg nu defar géej gi kooku kay boonu daw la sonn daw danoo daw pëccët hmm? amul benn werante daanu ñaan sunu borom te fii moo di bërëbu ñaan fii la yàlla di nangoo ñaan mara jël baxari ni yë saq yaani bay numa bar saq la moom nga wax léegi fii la ban dëkk la fii la ko yàlla def bu nu toogoon dégg si mag ñi li nu wax histoire fii nu di ko suuf si su tey ba suba dunu ba te ñii fi toog ñëpp nag ñi nga danoon ñu fii dend ak ñëpp sëti wóli yu la nu xamul dara yi bu ñu ñaanee yàlla may leen si barke seen naam kenn nangoo ko toog <laughs> kooku sama jarbaat sa jarbaata kon nanu dalal sunu xel te nu xoo yàlla yàlla li nga bëgg yàlla na ko yàlla bëgg si dara jot bi nga xam ni kii avant da ngay am sens sens mooy ni mu nekk suñu kilifa si diini noonu la nekk suñu kilifa si deret te moo di génn yëpp nag du fii rek nag boo dee bu la ko sa armée la sa ceem ba bala ngaa sa sa gox ñëpp ku fi nekkul sama am nekk na fi seen nijaay kon nag kilifa gi du ko kilifa asaar boo xam ne nga ko fal yàlla moo ko fal kon lépp lu mu wax rek na nga xam ni xale yëpp loolu la ñu wax amul baat amul benn baat bu ñu lépp lu mu wax moom la ñu wax lu mu waxul waxul loolu lu mu nu digal moom la noo def lu mu nu tere moom la noo bàyyi am di suñu kilifa si boor yëpp nag boor boo ko wékkër mooy su suñu kilifa kon na seen xel dal si li mu leen wax yaa ne yàlla jàppale te jàppale bépp julli si jaay neen Moustapha sallallahu alayhi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأعوال والأفعال آمين وتهدي لنا بها جميع الحاجات آمين وتطيرنا بها من جميع الشيئات ترفعنا بأنك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة في البعد ممات آمين inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sallallahu taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah fatiha Thank you. booy booy. te ñun dara tur guddi suñu ko dara tur bëccëg ndax yaay suñuy doom yi ñu ngi liggéey dara la te ñun buntu bi loo dugg mooy suñu corona ku ñëw loolu nga noonu naxat. moom moo naxat. parce que démboo njaay rek. kii ju métti am na. ba kooku ñàkk na matériel ak matériel ñu muy tànn ak matériel xaalis bi muy génn. boo buggee am matériel. il faut sa njaboot liggéeyal la nga daal amal matériel bu laa gën matériel bu dem xale yaa ngi taxawal mu waroon loo xam ne fii rek gouvernement ñun tey ñun mën nañu gis suñu bopp loolu bii gisaguñu gisuñu benn doomu gendar boo xam ne moo nga di napp rek ñun la kaay forsanté suñu ko te ñun ñoo moom suñu carte man sama carte ngi ma njaganaay man pour dimbali samay waajur dimbali samay càmmiñ dimbali samay dox ma waaye képp ku noonu nax nax si boppam moom la ñu bëggoon tàyyi na yenanu sonal te bu ñu moolee bopp yëpp ci cinq heures de matin ñu rot ñun gàddu noonu suñu def bàyyi suñu ay xale tuuti di dem rek ci yàlla te yàlla tax di ñu di ñu dundale suñu njaboot di dimbali suñu ceeb ak suñu bopp loolu mooy suñu doole loolu mooy suñu interposé loolu mooy suñu bit loolu suñu foofu te gendal nag jàngaa fi am bu ñu ara ara ñu ñoo nekk mool yëpp bu ñu demee si école yi daanu jàng ba am suñu jëpp la waaye dan naa noonu dan na jagaat yàlla nag moo dogal loolu suñu ku ñu dimbali nu dimbali ku ñu fàttali fàttali comme nag yow tey da nga samp rek te yàlla tax yàlla na nga jiitu rek ñu topp sa dañuy daw yéen pexe la am pour mel ni ko jàppale te wàcc ñu ci yàlla boole itam def naa buñ njëkkee gisee ñoom laa la wax man ay jigéen rek laa am kese ñoom laa am leen dimbali dimbali ko man ñaanu ma maa ngi sant bu baax a baax a baax waxtaan naa ak imam léegi wax naa ko li ma bëgg fii li ma fi li ma leen di wax rek mooy ngeen amee seen xel àdduna xel moo koy doxal xel bu sell wax naa ko li ma bëgg su ma jëlee réew mi ci semaine bu njëkk bi naa waxtaan dem nañ ko waxtaan ak président pour def moratoire moratoire mooy décision yi jël ñu teg leen suuf pendant fukki weer ak ñaar bàyyi woon liggéey ci diggante bi ñun ñu waxtaan suñu biir am solution bu définitive nga xamante ne benn mbool kenn dootul jël jaalal ci biir bi kenn dootul jël matériel la kenn dootul jël caaxaan ñu amaat jàmm beneen bi mooy ndàmpaay bi. am na ay famille seen doom te ba léegi kenn dàmp am naa ci solution aussi ci benn fond bu ñu dara lan pour solutionner problème boobu définitivement li ci am solo mooy li xewoon ci réew mi euh, nga xamante ne ñi ci jaar ñëpp seen njaboot lañu fexe ñu am dara fàtte askan bi loolu laa bëgg tey ci réew soo soxna si wax nga ko léegi nga ngeen jege naa yoo seen i carte carte yooyu soo ko dajalee mooy fal ñi donc ki ñu war a fal 2024 ki ñu war a xool la waratuñu rek xool ne d' abord Macky Sall dafa war a dem loolu mooy numéro un moom jeexal na ci ci réew mi ñoo ko faloon ku ñu dénk ñu la dénk suñu ñëwee ne la joxaat ñu waroon ci nekk ñeneen ñi ñu ngi fi yàgg na. Macky Sall ak ñeneen ñi yàgg na fi te réew mi doxul lii am solo mooy ñoo xam ne dem ñu noppalu bàyyi ay nit ñeneen ñu bëgg seen réew la te utuñu dara ci réew mi aussi lu dul réew mi dox ñu bàyyi ñu doxal réew mi. politique bi ci amoon mu daal di fay benn yoon définitivement lii mooy suñu kàddu imam ñaan na léegi ñu ngi sant yàlla ci ñaan yi ñu ñaanal wax nañu nit ñu yottoon xam ko mooy géej ñaar mooy xolu ndaar te ñëpp xam nañu yàlla yàggal ko ndax waaye bu ñu sax ci ci ci ndar maa ngi leen sant di a ne dal dina neex ak naataange askan wi réew mi si naat la jëm réew si naat la jëm foo ding fa am ndam Cheikh Alassane Sène askan wi dañ la askan wi cheikh bi dafa baax dafa yar dafa mat nit moo tax ñu ànd moom moo tax mu am lu naata réew mi rek ci lay dox nekkul ci fitna liggéey dong la ñu war tànga askan bi moom rek a baax si ñun Cheikh Alassane Sène kaay defaraat Sénégal Cheikh Alassane Sène yaay defaraat Sénégal a jóg Cheikh Alassane Seck moo ñu tëj na kon nag defaral réew mi ki pare dafa wute ki parewul Cheikh Alassane Seck pare na soppi réew jëm ca kanam ñëwoon doon leen seet sunu waajur di Alassane Sène tey daf fi ñëwoon ni woon day ñëw si dëkk bi pour seet si ñi nga xamante ni am na si ñoom yaakaar ma ne ko am na sunu ay jabar yu nekk fa ay jigéen nan dem ñu egg fa ñooñu ay jigéen ñu am fayda la ñu am fula di liggéey pour jàppale seen njaboot ñoom laa la indil nii ñoo nekk nii wër la koo fi gis rek jigéen la boo xam dafay daan dooleem di wut lu mu yóbbu pour jàppale jëkkëram bala noo commencé nag ñu ñaan ñu def fatiha falaxi ak naas ñetti salaatu ala nabi nu ñaan yàlla nu ubbi si bisimilahi rahmaani rahim eggale si alhamdulilah كل شيء وعززتني مستمسكين بياس أحمد خير لنا من منتهى ومبتدا من خالها في زمن الوباء أمنه الله من البلاء jaahi allahumma salli ala sayyidina Muhammad fatih lima xawa xaatim lima wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbi nga xam ne mooy mbaaru penc mi di mbaar mi nga xam ne moo féetee ci digg bi balaa maa mën a def dara nag damay nuyu ki nga xam ne ni mooy njiit li di président bi nga xam ne mooy bu mag bi di ci jiital nuyoo ki nga xam ne moo ci féete mag di soxna taaw di ci teg soxna Xadi Saar mii ndax su ma limee ñaar ñooñu day mel ni lim naa juróom fukki nit yoo xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi nekk te delli si uuf mbooloo fii ndax xam ngeen niñ ko daa liggéeyee gan gu nekk gàttandu ngeen ko fi gan gu nekk teertu ngeen ko fii ci tëli bi ci ndigalu lan muy ci ndigalu seen doom ji xeebatu ko ji nga xam ne mbubbam noonu la oyofee amul saleer amul passion waaye bu ne tefes gi nañ ci sampi bant ñu ne woowu leen mu jënd ñëw teg bu na armé leen nañ góorgóorlu ci bunt ñu ne woowu leen Touba mu ñëw seele bu na barab yi ñëw leen tabax ñu ne woowu leen Touba ñëw seere bu ne ni nit dëgg jam na ko wala ñaar xeex nañ wala pont jam na ko ñu ne woowu leen Touba bu nekkee bi tilim na ñu ne woowu leen Touba mu wuti buret wuti rato wuti peel wuti lépp te amul partenaire politique ànd kook askan bu ñu taxaw di ci liggéey sama jigéen bee commissaire de ko mujjoon a téye mooy première président waaye yaakaar naa ne fii la ko fekk moom xam ne dara muy soxna Xaji Saar barki dem ba léegi ñoo ngi wàcc ngir jëlee fi soxna yi ñii lii la ñuy dund fii mooy seen kër mooy seen bureau fii la ñuy añee fii la ñuy reeree fii la ñuy ndekkee fekk leen fii sax moo gën fekk leen seen biir kër ndax li nga mën a waxtaan ak ñoom fii mun a ko waxtaan ak ñoom seen biir kër ñu nekk ay nit ñu am valeur xotti frigo yi ay weñ la waaye ça récolte beaucoup de millions lañ ciy liggéey koo ci dem mi ngi tabax këram yor njabootam koo ci fëgg fii mu toog xaalul xaalus politicien xaarul ku ko may mën na ñoo jënd lu ñëpp di jaay waaye sama jëmu ji xeebatu ko ji du leen dañ ma naw ci benn mbir mooy dama leen a bëgg te fonk leen moo tax ñu jël lépp delloo ma sant di leen gërëm ndax saa yu ma pëlis tegee loxo ñoom ñëpp ñu takk seen i sër ne leen du ngeen ko fi tëjee ndax xale bi mooy suñu loxo mooy suñu tànk mooy mooy suñu càmmoñ bugaan fii la jógee barki démb yéen topp ñu ngir kenn di la tàccoog di la yuuxu di la solal ti set topp ñu ci ngir kenn di wut ab koppar war dërëm ndax suñu borom jox nañu ko donte ko amuñu dara ñoo ngi naan alhamdulilahi rabil alamin am ay jafe-jafe yu gën a métti ba ko xam ngeen saa yu ñu xëyee li ñuy per ci tefes gi buñ liggéeyut te dañ ko faa bàyyi dem ànd ak moom topp ko kon du koppar bi la ñuy topp bu doon xaalis bi fii la ñuy yem te naan ko waaw ñëwal ndax li ñuy am fii amoo guñ ko ci moom te gisoo guñ ko ndax buñ ko xamee yàggul waaye dafa doon nit koo xam ne ku ne ko jàkk da nga gis ci moom ñaari melo muy da nga gis ci moom taaru Yuusufa waaye da nga gis ci moom sell ak Seydina Muhammad loo bañ bañ nit waxal ko Seydina bu ngeen ne ko jàkk da ngeen xam ne nit ku baax la nit nit ku sell la kon kooku boo ko gisee dina dëgg ba doo gis ci moom daray taq loo xam ne day niroog ki tappale moo tax ko bu yàgg moo tax ma sonn ci moom donte ko xaw ma ko bu yàgg fii kenn ku fi nekk ñëw na fi waaye gis ngeen ne may dundee moom ñi fi nekk ngànk réew mi gis ngeen fi ñu jaar ak man compte gen daa taxawal waaye damaa lànk loolu Cheikh Alassane Sène tey jii dama naan bu doon kilifa diine la kilifa diine yëpp mën nañoo teg la sax parce que loolu laay santé yow ci ay gént la ma dikkee ndax Bougane dafa wax ak man tey ñu téye sama loxo léegi léegi jox ma sa coordonnée ma tëdd ngëb ñaari ngëb géntu ko daana na ban laa ci àndal bi ma tàllalee ba Bougane daf ma rëcc def gu xonk bi ma tàllalee sa bos dama koo jàpp mu weex tàll def suukar si weex tàll ma xëy suba coordinateur jot ma gaaral ma oto ma ne ko kooku de mën na ànd ak moom ndax ñun xamuñu dara ci yàlla xamuñu dara ci ne waaye am nañu xidmatul xadim goo xam ne ni lépp lu war a ñëw ci ñun rek suñ Tuubaa dinañu ko xamal lu jiitu muy ak ñun ñu doon doon xale te ñoo gën a xebati ko ci li ñuy dund suñ jëmm yi nag oyof na loo waaye duñu waxi fen kon bu buñ demee ba ànd ak yow ma indi la fii ci jigéen ñi koo ci gis nag mbooloo la boot ñu yori tour yori plan du ñu ndaw de ñoom ñooy fal nag ñooy fol ñooy fal ñooy fol ndax ndar ku fi gañe ñaari carte nga gañe boo ne gendar da ngay coof tuuti ci Pikine sànni sa doogo mën a dem kon fii boo fi amee base liñ bëgg ci yow nga defal leen ko muy ñaanal la ba nga jot ci réew mi mbaar yee ngi nii bu ne suuf maa dem wuti ay camion ñëw sotti ñu sëkk seeni mbaar te xaw ma fu ma koy jëlee te bu ma añee du ma reer du ma ndékki ay jàmbaar lañ ma bëgg ku leen dimbali jën bi ñuy jaay dañ koy glacé ci frigo bu ne nëbee dañuy perte borde leen ci topp amuñu chambre de froid ci réew mu toll ni ndar am géej am dex am ñetti dex am benn géej am pétrole am gaz ngeen dëkk ak ay ponk yu fi nekk yori milliards tabax soto yu mel ni perkal te ñun fii ñu toog gisoo guñu suñu bopp ci xet gu bon la ñu noyyi fukki camion suuf sax mënuñu koo jëndal ñu sakk suñu place kon ñooñu matu na njiit moo tax ma téewoon sama bopp nangu maa dem ci kenn kenn du na fi gis na ma ci benn lodre procès ma lay taaj ku fi ñëw nag accueillir naa naal ndax ku la seet si nga dalal waaye man à ma personnel damaa engagé wu pour ànd ak Cheikh Alassane Sène ak képp koo xam ne nii ànd nga ci man te yëg li may liggéey si engagement boo xam ne nag ci dëgg lay doon muy nag nit ki booy ànd ak moom li nga seede ci moom na nga koy gis ci moom li nga gis ci moom te loolu nga koy nawee loolu nga koy jàppe te moom lañ ko nawee moom lañ ko jàppe waxtu buñ demetee ba gisuñu ko ci moom amuñu ci kersa duñ koy dagg wàcc te yàlla buñ ko gis ci yow ndax ku fi nekk jaaram ci gisal kon mat nga li nga doon jigéen ñaa ngi nii yaa ngi nii Gendara nga nii sa premier seize féminin nga nii bu fekkee ne ba nga gagné élection àddina yëpp ndax loolu la ñu am fii nga dugg nii juróom benn fukki mag ñu baax ñoo fi tëdd ki jàng Cheikh Omar Foutiyou Tall alxuraan mi séddoon Sëñ Tuubaa mi mi ngi tëdd Cheikh Ablaye Dieye moom nga doon ñaanal noonu moo topp ci barab boobu noonu allaahi waahidun waajuru Cheikh euh, Bamba Dieye kon fii nga dugg nii lu tax ma njëkk a dugg dug duggloo kenn ku fi nekk ñëw nga fi duggoo fi waaye kenn ku nekk këlay man ka déey moo ne ma naa la déey nga dugg fi moo tax ma déey la la dugg fi nga ñaan moo ubbeeku bi kon maa lay sant di la gërëm jërëjëf. mbooloo mi ah, ah, am na solo dafa mel ni dafa mel ni dafa mel ni Bamba mi li wax amul lu si di yokk ndax ñu li doon xaar jigéen ju jël kàddu wax metitam jaratu ko de ndax Bamba mii jooyal na leen te am ku la nag. amatoo looy wax ñun gendar lañu dëkk waaye bamba moo ñu fi gën xejj fii yëpp suñu ay jigéen ñoo fi nekk ak suñu ay doom ak suñu ay jabar ak suñu ay ndey moo ñu gën xejj si yéen gis nga dëgg dëgg rek tudd bamba moo ñu gën xejj kon bamba mi nga xam dafa ànd ak ñun ànd ak Cheikh Ablaye Sène mii ñun ñëpp ñu ànd Cheikh Alassane Sène mii ñun ñëpp ñu ànd na leen dem fa ñuy dem wuti la ñuy wuti mbir mi nag li koy wone li koy wone damay wax benn baat bokk naa ci yow dañ koy wane kenn du ko wane ci dox naan bokk naa dañuy organiser wu nekk say ñu xam ñu ni jiite ñan la kan mooy kan kan mooy kan ba ëllëgee buñ ci wootee ñu woo njiit yee ñu wàcce ci suuf kon mooy dañuy taxawal ay cellule cellule nag kayit la ñu xam ne ñii ñoo bokk ci ñun bu ñuy wax wax ñoom bu ñuy jëf jëf leen teg ñoom loolu mënta ñàkk ci politique su amul amul amul politique amu fa bu amul sax amoo amoo amoo candidat amoo amoo électeur ndax ñu bëri daañu ñëw si élection bu ñëw ci élection def campagne bay bëgg dee bu ñu demee élection yi dégg ngeen lu ñuy wax zéro zéro zéro zéro yàlla bu mu ñu dal suñu diggante ak yéen ah président merci. salaamaaleykum wa sëñ bi seen ñu ngi lay nuyu di la jaajëfal di la dalal di la wax soyez bienvenue fii ci Ndar Géej fii si Langue des Braves. gannaaw bi ni sante yàlla julli si Seydina Mouhamed sang-sang yi di la wax dalalal jàmm ku nu wax mus nu wax dal ak jàmm dal nga ak jàmm kon dalal ak jàmm di la wax wàccoo yoon bi ndax ku ñëw si Langue des Braves te ñëwoo ci Gendar Mole ñëwoo fenn ndax fii mooy bunt bi pël baa ngi fi maa manjaaga baa ngi fi saraxule baa ngi fi ñëpp onu jógee dëkk ba dëkk ñëw di daan seen doole te ku si nekk xam na ne ñun duñu am benn ressource boo xamante ne mooy géej gi ak pétrole ak gaz pétrole ak gaz moom gisagun si sunu bopp waaye lii nu jot a am as néew ñu siy daan sunu doole muy bërëg bi nga xamante ne mooy géej gi ñuy am sunu ay njaboot ñuy dem di ci loro di ñëw ñuy am ay xol yu metti ku ñëw ak la nga war wax soo demee zéro moo tax loolu ñu dun ko dundatul xam nga li ñuy dund tey dëgg suba dëgg gannaaw suba dëgg ku nu jur nag da nu war a yërëm te yàlla rek tax xoolal fii depuis 7 heures du matin wala 6 heures du matin la ñuy wàcc sunu lal 8 heures ce soir la ñuy sunu kër sunu dépense sunu tànk yi la nekk yaakaaruñu kenn ku dul yàlla ak ñi nga xamante ne ñooy sunu ay borom kër yi dem di nappi di teer di nu jox ñuy jaay di wut di faj sunu soxla kon kooku xam seen ay métit xam li ñuy dund am nañu tawxiit ñu daana ñëw jàppale la te yàlla rek tax ndax ñun sonn nanu de yàgg nañu siy sonn ndax ku xool fii nu nekk ni amul hygiène waaye yàlla mi nga xamante ne mooy sàmm di aar yal nu yàlla sàmm aar nu ba jox nu lu gën lii ndax buñ doon suñu sogoo duñu wàcc suñu kawlal wala duñu am suñu ay bitigu jën ay ñu baax duñu fi fekk fii la recevoir nag fii la ñuy lekke fii la ñuy naane fii la ñuy defee lépp parce que sunu borom moo nu jagleel lii ku nekk ak ku la yàlla lu la yàlla jagleel ñaan nañu yàlla nag dem ba nga xamante ni daanu bokk ci cadre Seydina Mohamed yi loolu la ñaan yàlla te bëgg nañ ko yaa nag sunu borom def ndax c'est le travail qui paye te du liggéey te yàlla rek tax di liggéey di dundal sunu njaboot di liggéey di faj sunu ay soxla sunu dépense nekk sunu ay tànk sunu loxo jotul sunu gannaaw waaye képp ku ñuy dagaan sunu borom. sunu borom mooy ki nga xamante ni mooy feesal sunu ay gémmin ñuy tundal sunu ay njaboot te yàlla rek tax kon sëñ bi seen li nga bëgg yaa ko xam yaa na la ko yàlla defal te bu la ko defalee nga xool ni ñëwoon nga si langue des braves ñëwoon nga si mbaar bu naan sopp sëriñ Fallu ñu dalal la ak accueillir la bàyyi la xel nag loo fi wax lu nekk daan ko bàyyi xel te incha allah bu dee lu dëgg si yow daan si topp ba mu jeex dañuy politique politicienne waaye fam ñoo xamante ne dañuy dox si dëgg wax si dëgg gis naa la de man ku ma ku ma jël sama parole ba wax rek am na lu tax may wax ku nekk nag laay jël sama parole di wax yaa naan yàlla defal jàmm yàlla yokku nu sutura yàlla musal nu seytaane te xam ne ku nu jur da nga nu a yërëm nekk leen si jàmm wasalaam. di ko julli si yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi lay sant soxna si ci kàddu yi nga yëkkati. foofu lay tàmbalee sax laataa may sant Bamba sant Imam Faali sant madike mi toog ci yow lay tàmbalee man nag du ma du état waaye dama bëgg jël réew mi pour ànd ak yéen liggéey waaye fi may fi may tàmbalee comme fii mbaaru sëñ falu la à partir de lundi dama bëgg defaral leen ko incha allahu taala li li waaw lundi Ibrahima lundi laa bëgg waa lundi incha allah waaw mooy mooy soxna si moo ma wax ne mbaar bi mbaaru sëñ Fallou la donc li ma bëgg Ibrahima à partir de lundi incha allah lundi. ñu defaral ma mbaar bi man dinaa jindaale photo sëñ Fallou bu rafet nag mayaale leen di def ko fi ah, ah, allah foofu lay foofu lay tàmbalee ak yéen. foofu lay tàmbalee foofu waaw waaw foofu lay foofu lay tàmbalee. kii mooy Ibrahima Gueye mooy la coordonnateur national. ci suñu coalition ngi moom moo nar jublu ci loolu à partir de lundi jox naa la instruction yi incha allah waaw dégg nga Ibrahima kàddu nag dafa foor ma man maa ko wax donc Ibrahima waaw dimbali ma ci loolu incha allahu taala ba ca waaw loolu waaw loolu sama diggante ak sëñ Fallou la yaa yaa yaa yaa ko tudd waaw te man nag yéen samay yaay ngeen ñii samay sœur lañu ñii samay rakk lañ ñii samay doom lañu te man dama bëgg jigéen dama bëgg jigéen dootul sonn ci réew mi lii moo tax ma jël engagement bi yemuma rek ci defar ko dinaa fi defaale tamit ay ay ay ay ay ndës yu yu xaw a nooy nag ndax ñoom dañu war a am jàmm waaw Ibrahima Ibrahima ñaan naa la ngir yonent bi salaay salaam lundi waaw dama ne waaw waaw de de de du du loolu laay bañ sax damay bañ mu nekk dig dama bëgg mu nekk réalité Ibrahima ci barke yonent bi salaay salaam lundi la ñu tàmbalee li ma wax nii waaw c'est important Bamba waaw c'est important waaw waaw waaw la la waaw loolu def ko pour financement def ko pour yëg-yëg li ci xol ngir jëmmi sëñ Fallu li nekk dëgg la li warloo ak yeneen mbaar yi ci topp loolu leneen la loo xam ne nañ ko ñaanal mu dem ba ci kanam saa yu ko fekkee rek da ngeen di changement voilà incha allah léegi nag maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm Bamba mi sookee jotaay bi di la sant Madické di sant Imam Faly léegi la ñu jógee ci imam ratib mu waxtaan ak ñun man seen doom laa seen laa sant na yéen li ci ëpp ci yeen ñëw naa ci sama dëkk ñëw naa ci xolu ndar léegi loolu la imam imam imam wax foofu ñu demoon ma bëgg leen wax nag bël bi bël bi laay tàmbale foofu laay tàmbale waaw léegi nag dama bëgg ngeen déglu ma ak xel yàlla dafa wax yàlla dafa wax ci alquran marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzaxul laa yabxiyaan mooy bël bi mais dafa am ñaari yeneen ñaari ay yu yu ko tënk ci biir alquran foofu lañu ñu war a référé pour pour am solution bël bi fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukazibaan mu wax marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzaxul laa yabxiyaan mu waxaat fa bi ayi alaa'i rabbikuma tukazibaan wax wax nañu wax nañu foofu loolu nag li ñu war a njëkk def li ñu war a njëkk def mooy mooy hymne national bi yàlla yàlla dafa am lum ñu woo yàlla hymne national bi dafa wax ci kaw pincez tous vos koras frappez les balafons ñun nag à partir de dootu ñu def pincez tous vos koras dootuñu def frappez les balafons yàlla la ñuy delloo cëram ci réew mi loolu mooy numéro un si suñu constitution aussi moom la ñu nar a jiital suñu paree ca loolu ñu am solution ci bël bi delloo ko ne yàlla waxee mooy leer leer invisible bi nekk ci digg digg bi te kenn waru ko gas muy leer yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam li may wax nag c'est une technique scientifique waxuma affaire wax nii rek alxuraanu karim c'est la science exacte loolu mooy numéro un deuxième bi mooy su ma yàlla dimbalee ma nekk président de la république incha allahu taala la première semaine danaa dem Mauritanie waxtaan ak président de la république bu Mauritanie ne ko comme maa ngi doog a toog dama bëgg nga may ñu fukki weer ak ñaar muy moratoire boo xamante ne kenn dootul jàpp benn doomu génn Ndar kenn dootul nangu benn filet kenn dootul nangu benn matériel nga may ma fukki weer ak ñaar ñu waxtaan am solution c'est important waaw loolu mooy numéro un ba ca topp nag mooy dafa am benn fonds bu ñuy wax la waqf le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde foofu ñuy wax building communal ca Dakar dama ko nar a def ko la haute autorité pour la solidarité nationale te problème yi mu nar a njëkk le mooy ndàmpaayu ñi fi njàkkoon seen borom kër demoon ca géej ga te fayuñu leen ba léegi loolu mu numéro bi ci des bi ci des mooy Guet Ndar nag jot nañu gën ko yée ci wàllu taxawaay gis na conflit yi am ci biir kër yi ndax xataay bi ak ñi bo ñi bokk kër yi ni ñu bëree macha allah il va falloir que ñu def ay tabax en hauteur ñëpp jot ci seen wàll la ca des état xool nu mu ko utiliser jàmm daal di dellu siwaat ci biir kër yi ndax ndax nañu waxante dëgg fii nag du génn daal rek laal na fépp ndakaaru ni ñaa ngi bokk dëkk ci kër yi te waxatuñu ay fukki at ak ñaar fukki at ñu waxante dëgg li ko waral mooy ñi ñu jiite ñoo doxalul seeni rôle tàmbale nag ci président Macky Sall mi nga xamante ne il n'est plus le père de la nation père de la nation père de la nation liñ ci taamu mooy doo wax mukk ci kanamu nit ñi ne am na dossier yoo xam dama ci teg sama sama conc waruloo ko wax mukk ci àdduna te yooyu dossier mu nekk say njaboot nekk say doom nekk say ministre nekk say beau frère ministre nekk say soxna nga jël nga ne da nga leen da leen muur malaanu sutura jël doomu jaamur yi daal di leen sànq man bokk naa ci def naa treize mois kaso bi ñu saagaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jël ma tëj ma ci cellule boo xamante ne mënumaa doxantu ma muñ loo ko yàlla musuma ko jàmbat bi ma génnee ñoom ñi yaakaar dama nar a mer fippu ma ne baal naa leen def na Cheikh Ahmad Bamba defoon bi mu dellusee see ca tukki ba mooy baal baal yëpp def na yonente bi def naa ca taalif nee naa ko sa del si màkk fay na naxar nga mënoon a fayantoo wëlbatiku jéggale li la tax ñu sopp la te ñun ñun république bii ñu am il va falloir que yàlla ñu jiital ko ci suñu ay yëf mënuñu mënuñu suñuy suñu tudd suñu ay doom wax yàlla mënuñu su tàkkusaan jotee ñu wax yàlla su tisbaa jotee ñu wax yàlla su timis jotee ñu wax yàlla su gee jotee ñu wax yàlla suñu amee néew wax yàlla suñu waree takk suñu ay sëy wax yàlla ñu ne ñu nag waaye liy doxal seeni dund dooleen wax yàlla loolu lan la amul sens loolu dina jóge nag ci réew mi te li koy jëlee ci réew mi mooy yéen yéen a faloon Macky Sall waxinu la peuple bi laa bëgg a wax léegi nag ki la joxoon dénk la alalam jamono su jotee mu ne la delloo la yow waruloo ko ñaanaat soo amee soo amee ngor moo tax maa ngi ah, lancer un message fort avec respect au président Macky Sall amul droit def troisième mandat dans ce pays li mooy dëgg waaw wax dëgg yàlla waaw waaw wax dëgg yàlla. fi may fi may fi may daanelee fi may daanelee fi may daanelee mooy dama leen indil xibaar bu am solo foofu laay daanelee man xam naa ne yéen ñëpp ñaar am na ci yéen yéen jigéen ñi. rarement léegi ngay gis jigéen Sénégal am benn boyet ay or nekk ca mu denc ca këram loolu mooy benn beneen ba beneen ba yéen ñu ci ëpp ci yéen jot nañu financement benn yoon waaye perte nañu bañ ko yote jotee mais mais mais terewul terewul banque bi bàyyiwu leen ma ngay ñëw ci li nga wax léegi di leen toroxal di jël alalam loolu laa bëgg mu dañ ci réew mi li ko nar a dañal lenn dama bëgg ngeen ku ñibbi na nga xalaat ndax nag li tax ma wax loolu yéen ñi ci yéen ku tiim ku jën xool xo ubbi ubbi ubbi laaf ba caaxooñ ba soo xoolee xonqaay ba na nga xam ndax lii bees la wala beesul wax dëgg yàlla waa kon nag ay boroomi xel ñu am expérience laay waxal macha allah dañ leen nar a ubbil benn banque des femmes damay damay supprimer la mairie de Dakar ca Ndakaaru banque de femmes bi dafa am benn loi bu ñu voté assemblée promulgué ko en 2015 muy le sur sur le waqf mooy le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde fonds boobu laa bëgg jël 580 milliards de francs CFA 2000 milliards de dollars mooy tourné ci fonds boobu 580 milliards la bëgg jël am benn département bu nekk ci banque des femmes parce que ci mairie Dakar laa ko bëgg samp ma am département bu tudd Allo Soxna May mu nar a financer les femmes ca ginnaaw mairie bi am na am na bayal bu fa nekk bayal boobu dama fa bëgg tabax benn tuuru cinquante étages boo xamante ne maa ngi ko tuddee kër ndate yàlla ndax li mu représenté woon ca talaatay ndeer te yéen ñëpp ngeen xam ko moom mu nekkoon jigéen ju mën góor ni ni ngeen ko doone yéen ci seen toogaay loolu laa bëgg nag waa génn gu fi ndax may tamit am naa cosaan ca biir waalo li ma bëgg mooy tour boobu mooy permettre ngeen am formation ba pare benn jigéen dootul am perte ci wàllu suñu ko joxatee xaalis mu war a liggéey dootul am perte man sama taxawaay ndaw ñi la ak jigéen ñi dama bëgg ngeen xam ko du ma politicien su ma jëlee réew mi maa ngi koy wax di ko baamtuwaat du ma tëj kenn kaso waaye nag waaye waaye tàmbalee ci président Macky Sall ba ci suuf amatul tukki nag amatul tukki li mu am li mu am mooy liggéeyal askan bi kenn ku ne la nga jotoon fortaatu ba nga nekkee ministre mbaa nga nekk président mbaa nga nekk première dame dinaa la woo ci suuf ne la liggéey jot na nag juróomi at yii da ngeen di xeex pour askan bi su lalu hôpital yàqoo dana am ma woo ca ñoom ne la nga jot a denc mos ca dem defar loolu te bëgg naa mu gaaw kat te loolu guddi lay dox nag waaye kaso noo amul. parce que kaso li muy def ci réew mi mooy nga jàpp nit soxnaam nekk ci këram jël alal ba def ay kaar ñu dem palais de justice taxaw def ay pancarte di wax libéré diw ñu dem ba ca biir askan bi waxoon nañu jàpp askan bi ne nag li kii yërëm nañ ko nañ ko bàyyi deful dara loolu du am fii li am la nga je la nga denc su fekkee ne denc suuf la sulil mu génn askan bi jëriñoo su fekkee denc bu sori la sa loxo lonk ci beneen loxo jëli mu ñëw askan bi jëriñoo foofu la ñu nar a yóbbu réew mi incha taala maa ngi maa ngi leen di maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wax i Guet Ndar lañ fi wax moo tax ma indi fi wax yi Guet Ndar dalal xelu ñëpp indi juboo ci kër yi yal na yàlla yokk jàmm fii altine nag incha allah altine Ibrahima incha allahu taala defal ma loolu ma wax ci barkeelante bi maa leen sant leen gërëm yen ñëpp jërë ngeen jëf. leen ko gunge leen ko gunge leen ko gunge leen ko gunge leen ko gunge leen ko gunge leen ko. téléphone. téléphone. bu dee liggéeyal nañ maam Cheikh Fall lu mu nam Cheikh borom ndigal di sama yaakaar barke ma barke Serigne Touba gis nga li ma la wax nii Cheikh Ibra Fall laa lay gis Macky Sall ba muy xëccoo réew mi ma fekk tey ñuy immigré dimanche tey mu topp ci ginnaaw sëñ Mountakha taxaw ci suufu garab solul daal li ma lay wax nii bu amul yàlla bu ma fa naan bu fekk ba ci suufu garabu niima Macky Sall journaliste yi dar ko jox ko rajo solul daal ñuy immigré jumaa tey maa ngi taxaw ci mbooloo moom man barke Cheikh Rafa Daaru Xudoos ma ne ko sëñ bi li ngay dagaan mu ne ah ma ko am na ko. tey nga fekk ma ci mbaaru sëñ Fallou ñu tuddee ma Xaadimu Rasul dara jëy Cheikh Rafa da nga am ndam man dof bi waxal chef bi mais ku mu taxaw di filmé di dugal téléphone bi fee na ko bàyyi danaa jàppante moom de. toyoon mbaar mi. soo dee membre de l'association boo xam ne. di ay xarakat yoo xam ne fu ñu wàccee si suuf di xeex sa yéen te kuñ ne yow yow kuñ ne du yow du yow ndax man du ma yóbbu nit foo xam ne ay wax jaaxaan fa dama ne ko woon jigéen ñi dañoo nekk ci waar ak tàngoor bi mënoo fee ñëw ñàkk bañ leen nuyu mukk ndax kon dara da ma indil problème waaye lañ jugee ca mbaar ma la ñëpp dégg ñoo fa nekk ñoo ngay fecc ba léegi taxaw ndax da ngeen bokk ci ñuy fecc ba da ngeen fecc ba faw te dootu leen taxaw da ngeen fecc ba faw te dootu leen taxaw incha allah moo tax ma ne da ngeen fecc ba faw te dootu leen taxaw kon Cheikh Alassane Sène ngi nii incha allah. Alioune Ndiaye. daa am. Thank you. ñoo nekk nii de. ah. xam naa bëgg tey. bëgg tey ah. kon sa sa mbokk nga sa kii de. alhamdulilah. nga tam waa Kolda yi. ñu ñëpp waa Kolda yi. macha allah. ak yéen bëgg tey. waaw am nañu ko waaw. suñu taal suñu taal bi mu ngi ko. suñu taal bi foofu la dégg. waaw foofu la dégg. jërëjëf. waaw bu baax a baax. waaw. waaw ñu ngi sa ginnaaw ñu man mii affaire bu bëri laa mais benn affaire taw si war a génn gi daa dégg da nga dégg sama mag la sama mag la xam na papa yaa góor ñëpp xam na mais jigéen ñi laa waxal jigéen ñi lu ñu wax nañ ko jëf toujours loolu la ñu man loolu la ñu war def man mii ndax damay xam na foo may xool foo teg sa tànk naa teg sa man na buum bala mënoo baax nga ànd télé direct à la télé am na productions yoo xam ne fii laa nekk ñoom direct à la télé dina ko war a dégg amul na benn njëriñ si dëkk gerte loolu amul na fi benn njëriñ benn njëriñ amul na ko alhamdulilah naka yaram bi bàyyi ci rek xam maa la ko wax. ñoom tamit liggéey bu rafet la ñu

jigéen ñaa ngi nii dana wax ne ñoom ñëpp comme ni ko taw waxee jigéen ñi benn kàddu bi def ko moom mooy benn kàddu bi jigéen ñi ko gis nga man li ma neex sa photo jël yow di dara lii nga def si suuf rek dama neex nag ñun ñu ko ànd ak mool yi rek nga nu wax nga nu wax jërëjëf aba jërëjëf merci beaucoup kontaan naa merci beaucoup garabu bopp yi métti garab gaa ngi léegi garab bañ bay métti léegi la garabu bañ bay métti bañ da koy bañ moom léegi léegi garab bañ bay métti ak borom bopp ak bañ bañ fa nekk.

waaw damay gas damay tolli mbalit damay àndale daanaka mën naa ne je suis boo xam ne maa fi nekk ko jigéen ñi amul benn partenaire boo xam ne su may dañ koy cotiser ñoom pour kon nag ñoom jigéen ñi comme ni nga ko waxee ci mbaar yëpp rek yërëmal ma leen ñu gersul ma leen ñu jàppale ma jàppale leen ñu jàppale ñu ñu ñëpp ñu ànd jàppale Cheikh Alassane Sène ngir élection 2024 fii ci Guet-Ndar sama il est bu ñu dem na saf waaw ñoom mooy ñun bëgg nañ bëgg nañ la ñun ñun ñu bëgg. yàlla yaakaar naa ko maa nga fa waaye aw ma woon ak si man nag Laobé laa loo ma may ma man gëwël laa maa nii loolu ma ñu yóbbu gëwël man loo ngi nii waaye kii nag mën ne ñu toj gi borom ndar fii nag jëndal moom rafetlu naa yow loo bëgg yàlla ko may ndam de xam ngeen bu baax li ma leen a jëriñ ci tefes xam ngeen bu baax li may liggéeyum liggéeyum ci tefes bi du ma ko gën ndax ci lay dama ko di yéen gën di yéen ndaw ñu nekk ci tefes bi man booloo doon benn ku fi ñëw ku fi dugg ku fi gaare ot wutal leen koy ndox mu seen sotti ko ko ci seen barawaate ñu jël jël ñëpp ñu ngeen jàppoon ngeen bàyyi te jàppal ma Cheikh Alassane mu ngi fi bu ko jàppale mu jëriñ de bu soobee suñu borom ak a dëgg. ma ne ko ak a dëgg. xam ngeen ne man ma ne dinaa ko def bu gisee alsaan seen nekku sax damay damay mbaar. kon moom bu dikkee allahumma amiin. dana am dund gi dana wàññeeku wàññeeku te lépp lu nu bëgg daal ñu ñaanal solo lool suñu njaboot dañuy jàng. allahumma amiin kii élection yi dama ko doon soxla ak suñ Touba. ñoom ñëpp ñu ngi lay wax ak ñoom te ginnaaw bu dee ko njëkk man ku sant Sène bëgg naa ko Sène bëgg naa Sène la sant. nee naa nag su ma jaaroon toj sa dina ko defar pare leen. léegi yéen a xëy bu duggee wàcc nii ñu xaaral ñu seen loxo. yéen a xëy bu duggee wàcc ñu ñooy yéen a xëy bu duggee wàcc. kon nag foofu nag waaw. Tú más, por favor, eh. لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به naan bii de moom moom bi ko yonante bi ñaanal dafa pare rek yàlla ne li nga si wax yëpp nangu na yàlla yàlla moom moo wax am na côté la ci yëpp laay ñu ko mën a sew yàlla na la yàlla dafa jàmm yàlla na la yàlla taxaw yàlla na la yàlla sax li nga bëgg yaa xam li nga bëgg si Sénégal bi yàlla na ko yàlla defal si ah, barke Makka ak Madina si baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen a gën a am suñu am nañ ko fi yàlla nañ ko yàlla mën a jaay si bi Ibrahima Ibrahima Gueye Ibrahima Gueye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 kon na rek loolu kon na rek bël bi jeexal na lu tàkk ñii am na ñeenti fan si géej bu nga génn seen ma mën ñu génn seen matériel bu ko dox seen soxla mën a dox seen soxla ay millions yàq si géej gi nii ndax boobu moo li sonn na ma jaaxle na ma noonu yow wootee ndimbal dimbali leen ku def ndimbal bi rek mu ànd ak yow ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke yonent bi barke Makka ak Medina Gracias. ba maa ngi ñëw commencé ba maa ngi ñëw waaw. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ah, président. Ah, président yi ñu dimbale jox kan ndax su ma waxee wax na su ma fi nekkee su ma fi nekkul suñu waxee wax na. ndax ñii ñooy GPF club Ramé de Guelda. voilà jàmm club bi club Ramé ko sax mbaam bi ñu ko foofu mbaa moom mooy moo fay nekk ci santam di ko leblente di ci liggéey boobu ba léegi def naa tabaski mën na lu ñu def mën boobu ba maa ngi ak ñoom daanaka bés bu àll ba bu ne. gëm a ñëw seen daje su ma ñëwee sax da neewoo dama bokk sax ci kees gi dama bokk sax ci kees gi dégg nga di cotiser comme ñëpp di lekk comme ñëpp ça dépend de 500 à x de 500 à x waaw yëpp par par par semaine par semaine la ah def di dugal mais cette fois ci année asalaamaaleykum amoon na lu dul ndànk mu ne mu ne jóg leen mu jóg fu mu jiitoon jóg ñu nag fii langue de Barbarie amul lu géej bu géej gi taxawee rek léppee amul usine amul daal ñaan nañu yàlla nag jàppale la bu la yàlla jàppale yeesu sa gannaaw langue de Barbarie ji jën yi mën na ñàkk ba nga ne dara tey mu teer lamba lamba lamba lu ko war ñàkk usine mm-hmm. soo nanam buñ ko waxal buñ ko waxal kii bi soo ko wax kon ñëpp ay jaaykatu jën yi ñoo fi toog na fi am fi di jaay glace bu jeexalee jënd lu la jëndoon da nga koy teg doo xam noo koy def. day yàqu sonn nañu nag jigéenu langue de barbare gi ñu wax ko sonn nañu ñàkk a wax sonn nañu ñu ne ñu ngi si gannaaw daal fu mu ne ay ca leen rek ñu doon ngeen baal ma àq nag. wax ji gàtt na lu si jug yàlla lu dëgg def lu doomu aadama ko. maa ngi lay sant bu baax. jërë wax ndàgg nag. ah jërë wax ndàgg. ma ndàgg. ndàgg ndàgg parce que bu suñu ma dikkee suñu gën a suñu ma dikkee dana yóbbu ci kaw. mais boo nee ndàgg waaw ma dikkee c'est officiel. Ah. waaw ma leen ndàgg. waaw ndàgg Ndiaye ndàgg Ndiaye kon maa ngi lay sant bu baax ndàgg di sant njaboot gi wax bi sax yóbbaale mel ni maa ngi tàbbi sama biir kër. sa kër suñu kër la. wax dëgg yàlla yéen bi ñu am nag yow xam nga ko te wax naa léegi Ibrahima ma ne ko il faut ñu def ma bind ni ma bëgg résoudre problème mu bëri bi dinaa ko bind ko ni ma ko bëgg résoudre bokk na ci parce que tey li ëpp solo pour régler problème yi a ngi jaar ci ay algorithme de l' artificielle foofu laa bëgg jaar xam naa ñu bëri xamuñu ko pour régler si grand problème parce que yéen benn tool la ngeen am mooy géej gi su taxawee lépp taxaw comme ni ngeen ko waxee donc daañu ci am taxawaay wax naa ko yëpp ci bi ma demee ci moom ma ne ko première semaine su ma jëlee réew mi incha allah taala bokk na ci visite officielle boobu mooy dem seeti président Mauritanie ne ko dama bëgg ñu def moratoire ci conflit yi am suñu diggante bi yéen ci géej gi fukki weer ak ñaar yoo xamante ne dañuy taxaw kenn dootul jàpp benn doomu Sénégal kenn dootul yàq. matériel kenn pour fukki weer ak ñaar ba pare nag ñu ubbi négociation yoo xamante ne définitivement problème dootu am ci ñaari dëkk yi te dina réglé wu parce que budget Sénégal fii ba 2030 li tax ñëpp di daw jamono bi budget bi day jógee ci 6 000 milliards de francs CFA dem ci 20 000 milliards de francs CFA ndax pétrole bi ak gaz bi ak stabilité sociale donc loolu daañu ko daañu ci am taxawaay li am solo nag ma dikkee wax naa ko ma ne bëgguma ku ma jàppale ci élection yi ñu jëm li ma bëgg mooy àndu nawle parce que su ma xasee ba nekk président incha allah temps bi dootu la may sax nga mën a dellu fa nga demoon dañuy waxante dëgg te yàlla tax su fekkee Madické mi ñuy dugg palais di génn lu mu am lu mu am dafay dellu siwaat ci ci këram parce que def na ko te amagul benn ndomba tànk ci réew bi donc su ko amee delluwaat ci ci ci njaboot ji waaw loolu daal lañu te am ñun am nañu yéene ci ci ci ndàgg bi am na yéene bu mag a mag a mag ci moom donc maa ngi lay sant bu baax di ñaan aussi yàlla gën a dëgëral parce que lii nga ma defal nii lu rëy la ñi bëgg réew mi bëri nañu yow sa expérience bëri na ñaari affaire danaa la ciy teg benn bi li ma jot a seetlu mooy neex nga àndal ku taxaw ci ay principe nga aussi ma lay ñaan njaboot gi nekk fii ci saint bi te nga bokk ci léegi nga encadré ma leen rek yaa ngi ëpp expérience ñoom ñëpp wax naa ko Ibrahima nga dimbali ma encadré ma leen encadrement na moom ak sàmm ñoo yem sàmmi ay nit sàmm ak ay jur dafa wute jur mu nga leen sàmmee benn yàq mais ay nit kenn ku ne ak psychologie donc ma lay ñaan rek officiellement ci kanamu say gox nga dimbali ma ci loolu yow rek yaa ko mun nag sa expérience bu bu yaatu bi nga am macha allah waaw loolu loolu laa bëgg beneen bi mooy dafa am olof yaay li mu wax mooy lii tax may may ànd ak yow maa koy gisal sama bopp li tax ma lay bàyyi maa koy gis boobu laa d'accordul man soo gisee li tax nga war ñoo bàyyi ak sa expérience ba mu jàkk ñu continuer ànd bi waaw parce que c'est important waaw man politique li xew ci réew mi bëgguma ko ànd ak tey ma dikkee suba nga ànd ak ma sàmba suba ma demba mu yàquwaat ñëpp tasaat tabax bi ñuy tabax il faut ñu lal ko ci suñu diggante jullit ak moroomu jullitam waaw c'est important waaw ma dikkee ñi ni toog ñaata nit ñoo ko fréquenté fii bëgg am ndomb tànk ci réew mi ba ñu ko amee gisut gisatule loolu moo xew ci réew mi cent 1960 ba léegi da ngay xool ñu wax benn exemple rek lay jël Fann résidence ca Ndakaaru état li mu fa amoon ci kër kenn xamul lu mu toll mais tey jii desetu fa 10 pour cent parce que ña ñu faloon ñëpp fexe nañu balaa ñuy génn ci ndooma tànk bi ñu fexe ba def ko seen tur du dëgg du yoon waa du yoon donc sant naa la bu baax a baax a baax te yaakaar naa message bi ma la wax aussi déggal nga ma ko. ndax ndimbal googu nañu ñu mën a apporter si sa wàllu expérience bi nga am maa ngi lay santaat nag ci kanamu say mbokk ci taxawaay bi mag mu la jëlal naaj naaj bi topp ko añul reerul reerul bi ma fi duggee ba léegi maa ngi seetlu nit mun nañ ko lemloo ay omam mais pas xelam maa ngi seetlu moo tax ma ne je tenais devant ñi ñu àndal si sa biir mbokk sant na ci taxawaay bi nga am maa ngi sant bu wér yal na yàlla fay la ko ci ci sa njaboot ci barke yonent bi Thank you.

Sénégal dina neex ak naataange askan wi réew mi si naat la jëm réew si naat la jëm foo dem ding fa am ndam Cheikh Alassane Sène askan la gëm askan wi cheikh bi dafa baax dafa am yar dafa mat moo tax ñu ànd ak moo tax mu lu naata réew mi lay dox nekkul ci fitna li ngay doon mu la ñu wan askan bi moom rek a baax si ñun. non fu mu yem rek sama amee suñu course bi ñu def. waaw non vingt heures jot nañu décroché. man foofu laa ko jàpp nii. non non man foofu lañ koy defee. ñu ngi yem rek def nañ ko ba léegi li ci des mooy ñu ëndi koo xam ne si nii xam nañ vraiment dina mën a yóbbu Sénégal fi nga xam ne si nii foofu lañ ko bëggee te yaakaar nañ la ci parce que li ngay liggéeyal yoon bi sallallahu alayhi wa sallam képp noo foire ak mais boobu nit ñi xëy na xamuñu la mais man xam nga la mel xam naa ko ñëpp moom moo ñu xam yàlla yàlla fa bi amin amin ñaanal leen ko teg nañ ci seen bët ndaw ñi moo ngi nii dàq beeg sonn ak coono yi dañ cee sonn ku ñu taxaw dimbali ñu moom lañ bëgg te kii lañ ci yaakaar ndax bi ñu ñàkk ñu ñu ñàkk ndax bi tëddee waaw kii mi maama sa père suñu seen bopp ñu am man nar ndar seen bopp nar ndar waaw wax na ma dégg naa ko xam nga ñun dañu bëgg koo xam ne tey dañu defaral ndar koo xam ne duñu dimbali bëgguñu ay xaalis ak ay ceeb ak yéen xam nga bëgg suñu defaral suñu ndar bi ba mu rafet. moom la ñu bëgg de dekkal ko dekkal ko. non dañu bëgg kuy wax loo xam ne dëgg ngay wax te yàlla tax ah, ndax ku ñu wax boo waxee li yow ngay wax la ñu jàpp mais bu passé boo deful li ñu war a def rek ñu def li ñu war a def ndax képp kuy fal fii ngay gobram xalaa laa téye si loxo bi nga 2000 daa fal barke borom Tuubaa te 2000 boo fal waaw te man wutuma ci dara mosuma leen topp damay liggéey am laa mais ñun loolu lañ bëgg Daxa bii mënul ñàkk fii trottoir boo xam dañ ko war jaar ñu si kaw télé bi jaar Daxa bii mënu leen waxee mën na dañ ci mënul dañ wenn fi ñëwee ëllëg ci da ngeen leen di man bu ma fa jëloon bi mooy pour ñu jëlee man muy amee ambulant comme ñoom mais kenn doot fi la ndax boobaa dama dul soxla seen ñaar dërëm ak seen ñett dërëm mais da ngay ñëw ñu jox la cinq mille bu subaa ñu jox la deux bi nga bàyyi leen bu subaa nga dàq la loolu mooy lan da nga leen di dàq wala nga bàyyi leen waaw man bu ma fu nekkoon kenn du fi lalat ndax la dul soxla dërëm dama la laaj salaire boo xam ne wóor na ma danga teg sama dugal waaw su boo doon indi cinquante millions du la dama la lëkkati kenn dootu fi lal waaw mais lool loolu la bëgg waaw kay merci beaucoup am na poudre janax am na poudre kaña am na aywa poudre am na

salaamaaleykum Dia ñu ngi dëkkee Bayal mais si kaw. ngeen ñëw rek bu ko defee président gisante ak yéen benn yoon dinañu ferme dinañu gagné dinaa dina tax ñu gagné du temps quoi. waaw alors Arouna Limo moo dëkk fii si kër gi. Aliou Badara Diaw aussi moom mi ngi dëkk biir village ay ko nekk nekk moom tamit wax euh, professeur la. ba doon surveiller léegi bon ba fa nekk yéen ñëw ñu taal moto bi fee laaj loolu quoi. waaw léegi euh, Fary Diagne moom Bayal la nekk moom moo doon coordinatrice su Bayal la. bu parti démocratique Sénégal. Eh, aussi nekkoon fa tamit président comité électoral bu foofu demoon nañ fa moom it bu bokk si ay plan ay tour liggéey liggéey bu am solo aussi euh, ñu ñëw décroché ko yow waxtaan ak moom mu nangu ànd ak ñun si liggéey boobu wax ko sa ay projet mu liir ka tamit mu mu am si kii daal mu gis ci boppam ni moom dina engagé wu sa ginnaaw jàppale la donc euh, moo tax euh, ça fait l'occasion yow boo fi ñëwee mu bokk ñëw gisante ak yow parce que mu doon wax na mu def la koy gis donc lii euh, chance la occasion la pour gis na tamit l'autre part yaa aaroon li moom moo dëkk fii Balakos te Balakos dafa nekk koñ boo xamante ni Abba Mbaye fii si ginnaaw la dëkk mu am ay ay leaders yu fi nekk si mouvement su président ay al ci mel fii si koñ bi ñu nekk yàgg fi nekk moom mu nekk fi ñoom ñu koy jéem a démarché ba taay muy bañ donc euh, ba ci kër gi mu nekk nii am na ay waa mouvance euh, APR yu fi nekk te euh, moom ba ma ñëwee wax ko wax ko suñu ay projet ñu ànd seeg ñun ndax premier jour bi ñu amee woon rencontre ba rek yow te lendemain ba laa ñëw wax ko mu ne ma lii moom dama siy dugg ba jeex si tàkk mm. depuis loolu nag mi ngi massifié mi ngi si programme yi daanaka ba t-shirt Sénégal yi bu mu ñëwee. Mhm. def naa si benn paax boo xam ne moom daf ko séddale. donc moom mi ngi ci waar bi mi ngi ci liggéey. ñëpp mhm. tey moom atelier la yore bon li ngi fi mu atelier quoi euh, tey la. waaw euh, day tëj atelier mhm. nekk ci liggéey bi. wuti permanence wala parfois ñu dem di seeti euh, responsable yu nekk si 33 quartiers yi. a la defoon nañ benn visite boo xam ne après ak Ibrahima Gueye. demoon euh, si responsable yëpp xool leen bis boobu donc moom engagé wu depuis lors ma ñëw waxoon ko say wax mu nekkoon donc moom tamit. Euh, wax na dal ci am ba ma déggee ni boobu ñëw nga ndar pour man liggéey bi ma def boobu ba tey dangay ñëw sama côté. comme ki ma la doon ñi ñi nga xam ne dama leen doon sonal tout le temps di leen wax président Cheikh Alassane Sène président président diggante bayaar ba ci ma liggéey ko boobu ba tey dama doon xaar yow ma ñëw comme ça ma xam ne suñu waa koñ xam ne ki ma doon liggéeyal boobu ba tey kat mi ngi nii mais nag peut-être nii la ko yàlla bëggee woon itam ma lay wax ni diggante bayaar ba rëcc ne ñun amul lu suñu école de la Mansaw ndax fa la ñuy diggante loolu man daal xam naa ni sama koñ li ma la mën a wax mooy liggéey naa fa la nga xam ne bu ma sañoon nga ñëw nga gis li ma liggéey maa sama bàjjen bi euh, évaluation harmonisée mais après dama wut sama benn suppléant mu kii ma parce que je tenais pour que pour venir assister à la rencontre Alain expliqué na ma lu bëri bëri mais am na lu nga xam suñ koy duñ ñoom dina la wax wax ji ni dina am lu nga xam ni da ko si jàpp mais lu si des yaa koy jéem a mottali par des recherches je pense que am na ñu nga xam ne waxtaan naa ak ñoom pour su fekkee am na si opposition bi kenn ku nga xam ni war nañu am si moom espoir ça peut être bel et bien Cheikh saan seen ak le parti Naatangué pour que ñu aspirer à un changement en 2024 ma xale am na lu mu am am na lu mu briefé am na lu mu wax si man am na ay jaar-jaar mais loolu noonu lépp xëy doomu aadama fu mu war a jaar il faut mu jaar mais loolu wàññiwul suñu engagement ak suñu détermination dara le parti Naatangué c' est ba nouveau que je viens de découvrir et que je veux aussi aider à commencer par euh, Saint-Louis Alain wax na ma si lu bëree bëri nee naa ko nag man su ma nee je m'engage c'est parce que je veux m'engager il y a aussi des réalités xam ni tey euh, secteur la bu nga xam ni macha allah am na électorat bu am solo te élèves yi tey am na tey benn bët buñ may xoolee parce que lu mu métti métti am na lu nga xam ni dinaa leen ba problème yooyu noonu amoon fi tey ñu ñoo mujj génn euh, envahir les rues ba gars yi exiger ma libération ba génn on a eu des déceptions si politique bi dama woon en grande partie damay euh, reculer nekk samay activité professionnelle mais des fois loolu lay indiwaat doo ko xam j'ai travaillé avec pas mal de responsables ku ma si mujj wax c'est le professeur Mary Teuw Niane actuellement je pense que mi ngi nekk si yoonu Dakar bi ñu su fekkee exil à Saint-Louis mais nii il n'est pas dans le pouvoir il n'est pas dans l'opposition man nu ma engagé aussi yow su ma sañoon nga jéem a chercher les contacts nga rapproché ko pour jéem ko gis parce que c'est un bu nga xam ni war ngeen mën a liggéeyandoo parce que su fekkee doxal Sénégal moo ko a jóg euh, wax naataange ñu génne sax benn slogan ni naatal Sénégal moom moo ñu tax a war ngeen mën a collaborer waxtaan pour trouver des terrains d'entente y a aussi d'autres responsables fi nekk y a aussi euh, ñu nekk à Dakar ainsi de suite lépp mënuñu ko wax fii parce que xëy na le temps nous est mais dites-vous très bien que bëgg nañ la jàppale si toutefois que ñu gën a am conviction pour jàppale la xëy na yow yaa ñu gën a convaincre ñu xam programme bi xam lan nga fas yéene pour Sénégal en particulier pour Saint-Louis ak suñu kon bii ni ñu dëkk ay citoyens mais ñàkkuñu fulla ñàkkuñu fayda te tamit nit ñi ku ñu waxal tamit dañ ñu déglu waaw en tout cas daal c'est un honneur de vous voir et de vous parler de dire que vraiment on s'engage pas à moitié mais on s'engage totalement pour euh, travailler pour Natangué fii au niveau de Saint-Louis d'autant plus que ya a des opposants yu fi nekk non y a des hommes politiques yu fi nekk nekk si pouvoir bi mais xeex la rek te xeex bi yëpp ay stratégie la saaga wuñu xeexuñu waxuñu leneen mais lépp lu ñu def stratégie lañ koy defee yàlla nag mooy mottal si ba si encore une fois merci beaucoup di la remercier di remercier sa ñu nga àndal délégation bi am na lu bëree bëri lu ñu war a wax mais xam na comme ni ko sama frère Alain waxee rek ñun moom ba nu engagé ci parti bi yàgg na depuis premier jour bu ñu ñëw hôtel bi seen teeg yow su lendemain bi dafi ñëw expliqué ma comme plan de travail yeeg yooyu noonu ma ne ko man li intéressé na te tamit ñu bu ñu gisee loo xam ne mën nañu jëlee benn développement suñu koñ bi ñoo ciy jàpp taaw parce que koñ bi bëri na ay jeunes ak ay boy yu fi nekk yoo xam ni jàpp ñu si dara amul benn espoir si dara seen avenir donc ñu bu ñu gisee la président Cheikh Alassane Sène ak sa programme programme bi nga teg ñu intéressé ñun ñëpp ñu ci am fierté bu baax a baax a baax gënoon liggéey ak yow te ñun ñëpp ñi yaakaar naa ne loolu nekkatul luy nekk di lam-lamee wala di ko wax mu nekk loo xam ne ay wax kese la dañ ko bëgg def loo xam ne ñu jëf gis ñu bañ ci attendre rien en ñun dañuy liggéey liggéey boo xam ni dañuy def loo xam da ngay teg sa bët te gis amul di xaar ma yàlla kenn chaque jour ñoo ngi terrain bi di massifier di massifier jour bëccëg guddi te dama sama atelier di ànd ak ñoom Alain ñuy woo ci terrain bi ñu dem seen ay responsable yeneen ñi chaque jour ñu tudd loolu donc ñu lu ñuy ñaan rek mooy yàlla eggale nu li ñu sumb nii muy suñu parti bii nii yàlla may nu si ndam may la si ndam boo xam ne ñëpp daan ci suñu bopp rawatina suñu gox bi ñu dëkk muy Balakos parce que ñun fii rek nañu am Saint-Louis noonu am mooy suñu fierté mooy suñu lépp te Saint-Louis gis nga nu mu mel ba léegi da nga gis ay tali yoo xam ne mooy loolu koñ bi gis nga nu mu mel bu tawee kenn du am foo jaar égu yu baaxul du ay intérêt personnel moon fi mais ñun dañu bëgg pour Saint-Louis yëpp Saint-Louis yëpp gis seen bopp si parti bi lu lépp daal lu ma mënti wax mooy nous sommes derrière toi ñoo ngi sa ginnaaw te daal la jàppale bu baax ak lu mun la mën jàppale loolu daal la amoon mu siy wax di ñaan yàlla yàlla dimbali nu jàppale ñun ñëpp na am ndam si yu soo maa lay gërëm di la sant bu baax nag di la dalal nag. maa ngi lay nuyu di di la réitérer suñu attention ci taxawaay bu mag bi nga am ci liggéey bu am solo bi ngay def ci biir Ndar di nuyu soxna Fari ak sa tànt maa ngi lay nuyu di la ziyaara di nuyu Alioune Badara di nuyaale Arona yéen ñi nga xamante ne yéen a ŋànk la responsabilité de représenter la coalition Natangué fii ci biir euh, Balakos ak li ko wër tout d'abord wax naa léegi chef protocole bi pour que demain ñu incha allah fari à votre convenance foofu ci fi ngeen dëkkee pour seet si liggéey ba ngeen fa liggéey incha allahu taala di nuyu sama mbokk yi aussi maa ngi nuyu war naa fa jaar su ñibbi léegi incha allahu taala di wax rek ni ko Alioune Badara waxee léegi suñu réew dafa nekk ci tournant bu ama am solo en 2024 te soit ñu ñu génn mu am ñu ko bëgg jëmale ci yoonu taal ko ñu ànd ci ak ñoom mu takk ñu war a dem vers une réconciliation nationale wala intelligemment ñu fexe ba jàll cap bi mais avec diplomatie une diplomatie intelligente mooy dara bañ fi takk ñu bàyyi nit ñi ñu àgg ci élection bi tànnaat ki ñu bëgg mu jiite waaye ca njëlbeen nag li am solo mooy wax président Macky Sall qu'il n'en est pas question que mu nekk candidat comme maintenant c'est lui qui a organisé la couture de l'article 27 su fekkee ne vicieusement le Conseil constitutionnel dafay accepter sa candidature su boobaa ñu infliger ko beneen sanction bu gën a lourde encore mooy qu'il ne soit pas qu'il ne fasse pas partie des deux premiers à l'arrivée pour qu'ils comprennent que ñi ko mayoon ci jamono bi ñu ko mayee ba ñu ko laajee ne ko delloo ñu suñu yëf élé avec élégance daf ko waroon delloo mais bañ jël boppam di ko dóor ci mur bi ak ñii mu àndal loolu nag jarul xuloo jarul xeex jarul ñu reyante suñu biir parce que loolu it dafa war a deñ ci réew mi sénégalais yi nekk di xuloo seeni biir ngir ay leader dafa war a deñ ci réew mi pour man rafetul que kenn dem ba am benn dayoo ci réew mi wëlbatiku di orchestrer ay nit pour sauver sa peau pour man ce n'est pas normal jaam su amee lu ñu la teg da nga koy assumer avec responsabilité mais détermination aussi ci digganteem ak boromam pour man c'est capital man j'ai été emprisonné pendant treize mois ñu tooñ ma bi ñu saagaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam et je l'ai vécu avec dignité bi ma génnee aussi j'ai pardonné pour avancer parce que dans cette prison j'ai écrit 4000 pages jagleel ko gën gi mindeef ensuite ma wëlbatiku bind fa un projet de société que j'ai intitulé Vision ràbbal la mbaal yàttal la gal loolu nag ce projet va révolutionner le Sénégal mais dina nekk encore li ci ëpp solo mooy projet bi dina permettre que yeneen dëkk Afrique yi mën a saytu naka la Sénégal en si peu de temps génnee ci étape bi mu nekkoon pendant plus de cinquante ans d'indépendance Sénégal des di stagner aéroport u Qatar il y a ans aéroport Léopold Sédar Senghor moo ko dàqoon fuuf léegi aéroport u Qatar mi ngi nekk benn aéroport boo xamante ne bokk na ci dàq ci ci ci monde bi li ko waral mooy patriotisme wax naa ko ci njëlbeen nee naa bis mooy remplacer Macky Sall aussi au palais ñu def passation incha allahu taala suy génn naa ko joxaale benn feuille mu yóbbaale mooy le préambule de la constitution muy muy wax engagement patriotique dinaa ko mu dem mu méditer si parce que pour man à la place d'emprisonner ñi fi nekkoon am naa ci solution mooy fexe ba kenn ku nekk ci ñoom pendant cinq ans ñu am taxawaay boo xam ne dañuy delloo askan bi lépp lu waay mosoon a am ci diggante bi nga fi nekkee aux affaires te la plupart du temps quand ministre ou quand président de la république normalement waroo am alal soo ko jeexalee mais fii rek dans nos pays dañuy gis un président de la république mu ànd ak ak ay ministre ak ay directeurs de société en si peu de temps ñu nekk ay multimilliardaires parce que derrière ils n'ont respecte aucun de leurs engagements vis-à-vis du service qu'ils devaient aux populations mu nekkoon un engage un sacerdoce un engagement moral bu ñu waroon tenir te defuñu ko loolu nag intelligemment ku lekk alalu askan bi pendant cinq ans di nga privé sa bopp tukki di nga toog ci réew mi di nga wane engagement ci diggante sa réew mi dans un système apolitique ci sa diggante ak nit ñi politique bi moom dañ koy teg fële ci ci ñoom dañ koy ajourné suñu paree ca loolu suñu xoolee ne hôpital ma nga fongole mi manqué na darab manqué na alcool manqué na ay rajo manqué na ay machine daañu xool kenn ci ñoom mu dem jëli en charge defaru bërëb boobu c'est un cahier de charge que je vais lancer les nuits la justice marchera la nuit mooy créé boobu ñuy dégg du ñu ko dagg mais elle va marcher la nuit incha allahu taala et nous allons y mettre toute la rigueur qu'il faut pour que ku fi jël alalu askan bi delloo ko depuis 1960 à nos jours da ngay gis benn kilifa il cinquante milliards ci compte bancaire am mu jàkkaarloog télé ñu ne am na benn ndaw boo xamante ne dafa soxla trois cent mille pour ñu faj ko mu zappé nekk ca leneen ce n'est pas sérieux da ngay dugg avion di dem ci benn dëkk gis wala cinq ministres nga bokk ñoom en première classe te état du Sénégal moo ko fay kenn ku ne billet am huit millions lay jar seen yoon nekku ci ci loolu les choses vont vont bouger dans ce pays incha allahu taala en 2024 ba ca topp euh, Alioune Badara moom moo ko moom mooy lan lañu naral waa Ndar pour man nous avons un plan bu ma tuddee tàkkusaanu ndar pas cul culturellement économiquement la ko bëgg lalee bi yoon mooy tàmbali les travaux du TGV à saint le train à grande vitesse te état du ci dugal un franc parce que nous allons passer par la conférence internationale virtuelle sur la vie de Cheikh al Islam lancé les grands travaux du TGV ak le musée virtuel Cheikh Ahmad Bamba ñaar yooyu 600 millions de de dollars la en 24 heures su ñu ko jëlee nañu permettre ñu waxtaan ak le fonds d'investissement d'Abu Dhabi benn garantie la ñu soxla mooy la stabilité sociale d'un pays et nous avons la stabilité sociale kenn du ko perturber soo jàppee Macky Sall def ko ci kaso bi en 2024 tu ouvres les portes du djihadisme ca Fouta foofu la ñu nar a jaar parce que il a beaucoup de sympathisants dans cette contrée à la place de d'emprisonner quelqu'un comme ni ma leen ko waxee léegi nous allons chercher des voies et moyens pour dem vers une une participation citoyenne ci doxalinu suñu réew pour man c'est capital suñu waxtaanee ak le fonds d'investissement d'Abu Dhabi ñu 800 milliards de dollars mooy tourner autour de ce fonds ñoom suñu financer ce projet parce que j'ai des canaux qui vont nous permettre que ñoom ñu financer ce projet suñu ko defee la ca nar a topp nag moo am solo mooy nous allons aller vers une indépendance économique avec la renégociation du partenariat gagnant-gagnant ak France ci naka man je ne dirai pas la France dégage nous allons ouvrir le Sénégal je suis en train de rédiger benn benn livre bu ndaw c'est un livret de onze pages su naka la ñuy def ba imposer le Sénégal partout dans le monde maa ngi ci xalaat c'est un soft power qui va permettre au Sénégal mu nekk vitrine boo xam ne adduna bi yëpp moom la ñuy waxtaanee la France d'abord li ñu naan njëkk def mooy waxtaan ak Alstom pour dekkal. la compagnie des chemins de fer du Sénégal pour que mu mun a dugg ci actionnariat wu Alstom d'abord ensuite ñu doog a jox le projet à Alstom su fekkee France lu ci loolu nous allons voir les Chinois directement mais bi yitteel waa Ndar boobu baax na yitteel na waa Ndar parce que 5000 emplois moo ci nara tourner te Ndar moo ci nar a ëppale parce que fii le projet bi nar a démarré bientôt Alioune Badara daañu leen présenter le projet nga nga gisal sa bët gis ni ñu naan soppee ndar bokk na ci suñu duggee ci après pont bi nga yem ci hôtel de la poste à gauche à droite pardon yem ci rond bi yem ci batiment historique bi nekk en face am naa ci xalaat boo xam ne ñu ngi koy taxawal fu ñu toll nii dañu bëgg euh, rafetaay bi attirer képp ku nekk ci àdduna bi hôtel de la post boobu et c'est un euh, c'est un patrimoine historique parce que yàgg na ci fi mu nekkee mais am naa xalaat bu ma ko naan soppee ba lu ndaw loolu espace boobu jàpp gouvernance en 3D bientôt di ngeen gis naka lañu ko réaliser ba mu mun a attirer képp ku duggati ndar incha allahu taala ba ca topp nag mooy li ñu bëgg def ci fii ci embouchure bi jóge naa Guet Ndar léegi gis naa la fay dee gis naa nañuy daggee caax yi nen fa nit ñi di deewee ñàkk lañ leen ndàmp yooyu yëpp mi ngi am foofu ay coono yu metti ña nga fa ku fa demul it munoo ko xam deew ma fana digal fa kenn dara li ma def mooy wax leen ne suñu jëlee réew mi li ñuy njëkk def la première semaine mooy d'aller voir le président de la Mauritanie pour demander que un moratoire sur l'ensemble des accords que le Sénégal et la Mauritanie ont signé si wàllu géej gi suñu defee moratoire pendant douze mois mool dina mun a dem nappi kenn dootul jàpp gaalu kenn kenn dootul jàpp matériel lu kenn pendant douze mois et ces douze mois moom ak man en tant que des homologues nous allons trouver des solutions définitives pour que moolu Guet Ndar yi dootuñu amati jafe-jafe suñu dematee en en en haute mer incha allahu taala ba ca des mooy le building communal bi nekk dakaar damay génne ña fa ne ñu réfectionné ko def fa la haute autorité pour la solidarité nationale. li muy nar a njëkk régler comme problème dans ce pays qui va remplacer d'ailleurs le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental yooyu yëpp dañ leen dégager indi la haute autorité de la solidarité nationale. li muy nar a njëkk régler comme problème si dëkk bi mooy jox ndàmpaay ña nekkee fee ca Gendar ñàkkoon seeni borom kër ba ñu demee ca biir géej ga te boobu ba léegi kenn dàmpu leen. d'abord dina am damp moral ensuite damp financier incha allahu taala ba ca topp foofu lay daanelee ale mu concerné ba léegi Saint-Louis euh, yàlla il parle aux doués de raison il nous dit dans le Coran marajal bahrayni yaltaqiyan baynahuma barzakhun la yabghiyan mu nekk il parle de de cette embouchure il parle d'une lumière invisible te mag ñu baax ñi xam ne leer bu invisible boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko jagleel ba ca topp mooy ñaari aaya ñoo ko tënkaat fa bi ay alaa i rabbikuma tukazibaan moo ñëw ñaari yoon seeq ko léegi nag Dieu parle au doué de raison lan lañu ñu war a def ba loolu le di yàq nappu gaa ñi delluwaat Abdoulaye Wade a essayé am lu mu fa def doxul Macky Sall a essayé pendant des élections bi élection yi jàllee retiré na ko ñun nag nous allons aller plus loin nous allons essayer de faire un cordon de contournement avec les algorithmes de l'intelligence artificielle pour que définitivement le problème soit résolu wax naa Ibrahima Gueye tout à l'heure ma ne ko on va faire un flyers ma présenter ko waa Guet Ndar pour wax leen lan ban solution laa nara a ci problème mu embouchure bi yemul foofu gis naa ne que kër yi ndaw na ñu ko bokk bëri nañu te famille yi màgg na donc nous allons aller vers des constructions en hauteur avec le le fonds islamique pour l'éradication de la pauvreté dans le monde yooyu Alioune la laa bëggoon indi mu ne quelques solutions maintenant certains diront qu'ils ils mais d'abord réalité ci rêve la tàmbale je rêve d'ailleurs c'est vrai je rêve mais li may gént lu mën a ne waxuma ne nañu jël Sénégal ñu déplacé ko yóbbu ko ci asamaan su ma ko waxee ngeen ñaanal ma ne kii nañu xoolaat xelam mais dama ne réew mi nañu ko nañu ko tabaxaat yeesal ko foofu la ñu toll te ñu xeex duñu xuloo ñay xeex di xuloo di yàqit ànduma ca bokkuma ca man j'ai fait ma prison treize mois décemment yenn saa yi sax ba ma nekkee kaso am na de grands politiciens yu nekk dans l'opposition suñ ñëwoon daan seet ay politiciens foofu yu nekk ci kaso ba dañ may tëpp parce que dañuy wax ne je ne suis pas fréquentable parce que on m'accuse de djihadisme parce que dañu saaga yonent bi ma ne war waru ko saaga te ëllëg su amaatoon je dirais la même chose ñu romb ma romb ma ils disent ne le fréquentez pas parce qu'il n'est pas fréquentable parce que il est accusé accusé on a dit je n'ai pas été condamné il y a jamais eu de procès mais damay re parce que je je veux devenir le père de la nation père de la nation du boddi kenn kay taxawaalu guddi ak ki tee kurusam ci jàkk ji ngay yemale parce que yàlla moo ñu gën fuuf moom ñu moom suñu lépp te xaajalewul ci ñi mu ñi mu ñi mu njaboot ji mu am lu ne mi ngi ci mais da nga gis ne mu xëy rek daal di sanctionné ñi nga xamante ne doxuñu ci li ko neex déedéet dem naa Malaisie dans une mosquée où c'est une mosquée qui fait mille place bi ñu jullee ba pare dama jéggi rek yem ci lu mat dix mille personnes ma ne xanaa fii tam dañuy julli fii mu ne ma ñu ne ma waaw ma dox ba egg fa ñu teg fa benn garab ñu teg fa benn bant teg fa soow ak ñetti guro ak benn béjjën tiim ko di jooy ma ne xoolal yàlla moom moom suufam mais ñaar yëpp autorisé na ko fee trois mille personnes fii dix mille di jooy di yëqat ndax ni ñu gisee soow bi jaxasoo ak béjjën bi ak tuuti deret ak ñetti ñetti guro ma ne xoolal te yàlla moom suufam donc ñun kii sommes nu pour vouloir juger ñi nga xam ne tegooguñ ci yoon du ñu kenn foofu la jàppee mbir mi le président de la république il faut que mu am un nouvel engagement ci la lecture des bulletins de renseignements généraux du waxi waxi terre à terre lay wax nandite nandite moo mun a lire bulletins de renseignements généraux mais pas euh, pas ngaaka te doxalin bi bi am nii doxalinu ngaaka la bii am ni moom lañ fi bëgg a jëlee maa ngi leen di sant nag di leen gërëm wala vraiment maa ngi sant di leen baax. salaamaaleykum. waaw waaw waaw. foog leen ko de. waaw moytu leen sëgg leen foog leen bant bi baloo leen baloo leen di ñëwal. Seck Seck Seck وآتنا في الدنيا حسنة آمين وفي الآخرة عاملة وقنا عذاب النار آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم آمين سبحان ربك رب العزة عما السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تبارك الله منا ومنكم moo ñu taxawal lii mu yàgg lool bëggoon naa defal historique bi waaye dafa xat waaye bu ma defalee historique bi baa ba ba pare daa xam ni tolluwul ci nii rek compte baraag nii lu mu lu am solo loo xam ne ma nga tàmbalee ci mag ñi bi ñu fii créé fii te tubaab bi nekk fi tubaab bi bëgg jël suñu diine ak suñu ngor mag ñi jël seen bakkan bakkan tekkasi bay créé benn jàkk bu tudd jàkk yi ndëgër di sax ñu koy woowe ndëgër mooy lépp lu ñu daawoon def comme nii di ko décidé contre tubaab bi foofu la koy def dëgër boobu ñu daawoon dëgër na moo tax ñu woowee jàkk jooju jàkk ndëgër loolu nag mooy dox di dox di dox xam nga ak addina bi ni mu demee bay euh, mu ñëw fii ba ñu sanc barab ba ñu sanc barab bi euh, dem noonu tamit ci ci addina comme ni addina di doxee bay sur le plan administration ñu xam ni événement kayaar yi fi yi fi yi passé woon te dëkk bi soxla woon benn mbooloo bu taxawal dëkk bi ca foofa ñu faf ko def association wutal ko récépissé pour conformer wu ci législation euh, sénégalaise waaye fekk na dañ ko def pour loolu rek après teg ko fële waaye li fi dox fii mooy kilifteef moo di diine moo di doxal dëkk luy doxal dëkk bi loolu moo fi dox ñi fi nekk nag moo di les notables les imams les délégués de quartier les képp koo xamante ni yàlla jox na la ndomb tànk ci Langue de Barbarie fii moom mooy sa kër maanaam bu fekkee teeloon ngeen ñëw tuuti daañ fekk mbooloo mi waaye bi nga xamante ni géey mu junoon waxante te mu wax ma seen programme ma xam ni ce n'est plus possible ma wax leen ni leen nañu nañu yeeweeku comme seen jàkka yi vraiment man leen man leen jóge seen jàkka yi ñu ñu yeew ko ba loolu moo tax ngeen ñëw fekk leen fekk leen ñu dem waaye ñii fi toog mën na représenté guet yëpp Langue de Barbarie yow waaw loolu daal laa doon laa doon dugal noonu la pour que xam naa ne du ñàkk yeneen jataay yu ñu war am fii soo boobaa daa gën xam lan mooy lan mooy lan mooy gëdd baraag bi ñii fi nekk nag kii Ibrahima Sall la tudd El Hadj Ibrahima mooy imaamu jàkk ji may wax nii léegi jàkk yi ndëgër nga xamante ni moo doon central guet jàkka jooju moom mooy moom mooy imam bi tey jii kii imam Mame Birane Seck moom mooy imaamu jàkka yi Ndounga Mbetaa kii Cheikh Liou moom mooy responsable sous quartier Loda kële moom dafa amee rôle bu am solo ci mbir mi moo di armée yi nga xamante ne armée Sénégal yëpp la parce que ñëpp fi nekk te yàlla dogal euh, gën a jóge gën a yay ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo fi nekk ñun la koy yàlla dénk ñu koy sàmm moom mii la ma ngi tànn mu nekk foofu lu fa xew moom moo ñu koy wax lu ñu fay def moom moo koy def li ñu fay def moom koy saytu moom mu am solo lool nag ci ci ci mbir mi kii mi ngi tudd Maguette Lo Mbaye mhm. bokk si jeune pêcheurs yi nga xamante ni bu ñu mag ñi bu ñu ñu soxloo lu ñu war def ci dëkk bi te war ko eggale ci njaboot gi danoo woo responsable pêcheurs yi ñu ñëw joge leen ñu wax leen pour que ñoom ñu dem defi moom mii si ñooñu la bokk si responsable yooyu social médiateur social médiateur social voilà. kële kële nag mooy icône Brac bi. kee mooy Alioune Ndiaye. boo xoolee nii daa gis photo mu toog di xim ataaya boo teeloon tuuti. daa ko fekk mu toog fii di di di xel ataaya. ataaya boobu ba ma commencé def fii amoon na huit ans. ba mu amee huit ans. ay sila ba mu amee huit la ko daawoon defal mag ñi. suñu maamaati maam di ko def di ko def ba tey jii. mu ñu koy defal ñun yàlla yàlla bàyyi ko yàggal ko lool moom moom moom notable la ci ca goxu Mbacké ki dend ak moom itam kii sëñ Samba moom it notable sa gox Mbaaj noo Fall Bale notable si loolu maanaam daal ñu ngi fi fekk nii représenté nañu langue de loolu bokk na ci li nga xamante ni mën naa la ko wax léegi li si des moo di jox la kàddu bi su ko defee yow boo waxee ba lay si jot nag ñu ñaanal la si fii nga xamante ni amul autorité bu fi jaarul mhm. waaw ñu ngi fàttali en en en 2012 daañu ko faral di fàttali ko président Macky Sall bi mu fi toogee te di wut wut wut nguur gi li mu toogee fii li mu déyantoon ak ak mag ñi mag ñi garanti woon que fii loolu ba ba mu demee chaque jour dafay wax ni loolu duma ko fàtte mukk alors taxawoon na sax pour defar fii tabax ka defar ko kenn xamul mais les pas les pas yi ni que ni que non non non euh, ça moom bàyyi nii rek bàyyi bàyyi bàyyi ñuy yi nii bu buñu dee ba war ko defar daañu xam naa nu ñu koy defaree mais vraiment loolu daal pour wax la rek ni la vraiment fii moom euh, sa la yow nag dama for léegi benn ci ci ci tànku wewu wewu kenn mu ne ma doomu do doomu doomu égyptien nga ah ma ne ah yow yow yow yow yow gennar yaa nga yow ma faal mooy sa maam yow ma faal mooy sa maam ñun ñi ma faal mooy suñu maam ak ñi ñi fi nekk ñëpp alaaji tay bu jàmm mooy maam ak si xam nga xam voilà kon daal nga xam ne ñu ne yow ñëwee fii ñëwee fii ak Bilo mais seen ajaratu Bilo Dia Bilo Dia waaw te mu gaañu fan yële passé waaw gis nga gis nga Majib Majib ñun li nga xamoon mooy ma Paate Paate Dieye Fall ak suñu suñu suñu mag euh, suñu mag euh, Adama Sarr ñoom vraiment daawoon euh, chaque ajuma pratiquement fii la ñuy jullee fii la ñuy añi fii la ñuy def yóbbu moom ñoom ànd ànd bu rafet boo xamante ni vraiment voilà kon nag suñu doom suñu doom suñu doom moo ñëw voilà maa ngi leen di sant bu baax di sant yàlla alayhi wa sallam di am mbégte ci présentation bi nga def di la ci sant di sant aussi dalal bi ngeen ñu dalal fii donte da ngeen xat sax timis bi léegi mu jot waaye seen doom moo ñëwoon rek yëgal leen jéego yi mu bëgg a dox ci ci réew mi ginnaaw bi ma bi ñu saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Charlie Hebdo ma bokkoon ci ñi naqarlu woon demu président Macky Sall ca marché ba à Paris bi mu ñëwee mu tëj ma kaso fukki weer ak ñett euh, amul jugement amul dara ma parce que dañ ma wax ne bi ma tëjee mu am un mois dafa yónnee ndaw ci kaso bi ne naa ko balu rek ñu bàyyi ma dem ma wax ko suñu saagaatee yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga demaat ca marché ba la ma waxoon lay waxaat ndax ñun amuñu ko ko ëpp mm-hmm. waaw loolu laa taxawe woon ñu téye ma ci fukki weer ak ñett ba xëy suba rek ñu ne naa naa dem ma génn bi ma génnee ma ne baal naa ko ndax yàlla dimbali na ma ci biir kaso bi ma bind fa eh, ñeenti junniy page jagleel ko gën gi mi def sallallahu alayhi wa sallam bindaale nag benn projet de société pour li ma gisee naka la war a taxawee réew mi fi may jukkee mooy li ci jiitu ñu am dëkk boo xamante ne quatre-vingt-dix-huit pour cent de croyants ñoo fi nekk. régional yëpp ñu fukk ak ñeent fenn fu dana fa jaar li ci am solo la ci TGV bi. mooy dañu nar a suñu partenariat avec la France d'abord la compagnie des chemins de fer bu ñuy dekkaliwaat ci réew mi moom dañuy daal di demander à la France pour que ñu am. ñoom entrer dans l'actionnariat de Alstom bi tabax TGV loolu mooy la condition sine qua non pour que ñu mun a taxawal liggéey bi jàppi ko ci Alstom su fekkee France accepté de loolu te dana ko accepté parce que fu ñu toll nii euh, li mu gën a soxla moom ci àddunaam mooy liggéey pour bañ a doom yi bañ a perdre emploi suñu ko tabaxee dina nekk un partenariat gagnant gagnant bokk na ci projet bi mooy président Sénégal ci perron de l'Élysée la ko président de la République française di ko teeru bokk na ci ñu am réciprocité ci suñ doxalin ak moom ci fulla ak fayda mooy su ñëwatee fii tamit moom tamit le président sénégalais ko ci marche palais de la République loolu bokk na ci luy def parce que dañu war a traité d'égal dignité ñun ak beneen dëkk bu mun a doon ci monde bi suñu demee na ba France li mu defal Chine mu defal ko Sénégal parce que président chinois su demee à Paris président français day déplacé wu teeru ko ci aéroport ñun suñu demee ba ñu amati loolu su boobaa ñu tamit dem teeru ko aéroport parce que dama dafa am solo Sénégal moo ëpp histoire que la France d'abord sur le plan religieux et ensuite sur le plan culturel culturel quand euh, Thierno Souleymane Baal di lancer la révolution taureau donc 1776 moo inspiré les couches les plus vulnérables de la France pour ñu lancer seen révolution française en 1786 dix ans après parce que soo xoolee les clauses de révolution yëpp ñu sukkandiku ci li Thierno Souleymane Baal defoon dans cette révolution torodo de 1776 beneen bi imam mooy maa ngi bëgg ñu dem vers l'acte 4 de la décentralisation ñu jógee ci acte 3 bi donte parewul woon parce que le volet financier moo desoon ñu traité ko parewul woon waaye dañu ciy jóge ndax dama gis dafa gàllankoor les différentes commune ci réew mi ma bëgg dem vers l'acte 4 mais d'abord avec la suppression de la mairie de Dakar li tax suppression mairie de Dakar dama soxlo bâtiment ba mairie de Dakar nekk dama ko soxlo pour jox ko jigéen ñi def ko la banque des femmes la banque des femmes mu jaar ci lu waqf Sénégal signé voté na loi bi ci assemblée 2015 mais nu ko doxal parce que loi bi ni ñu ko tëggee baaxul ñu war ko tëggaat suñu ko tëggee ba noppi 2000 milliards de dollars mooy tourné ci fonds diggante Riyad Abu Dhabi Doha Bahreïn ak Koweït jàpp Maroc aussi la France ni ngi ci bénéficier wu tey di ci tabax sa banlieue Angleterre mi ngi ciy bénéficié wu di ci tabax sa banlieue aussi Sénégal war na bénéficié wu ci fonds boobu 2000 milliards de dollars moo ci tourné 580 milliards de francs CFA lañ ci bëgga a capté pour dugal ko ci la banque des femmes bi nar a nekk ci building bi bi nekk ci mairie de Dakar soo jàddee ci loolu bâtiment bi may wax ci ginnaaw am na esplanade bu fa nekk kenn def fa dara dañ fa bëgg tabax benn tour cinquante étage tuddee ko tour ndate yàlla jigéen. bu amoon solo ci histoire bu réew mi ca wàllu talaatay ndeer ditax tax ñu bëgg loolu mooy fexe ba jigéen bu war a amati financement ci la banque des femmes mu am formation am suivi ba dootul perte aussi ci financement boobu mu mu nekkee moo tax ñu tuddee ko sox allo Soxna May ci département boobu loolu imam mooy yi ñu bëgg lal ci réew mi ngir suqaliwaat Sénégal bu bees ñaan nag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 tuliju leyla fi nahaar wa tuliju nahaara fi leyl wa tuxriju lxaya min almayt wa tuxriju lmayta min alxay wa tarzuqu man tacha bi xayri xisaab loolu loolu noonu mu ko mu ko tëggee moo ñuy delluwaat ñu war a taxaw rek xam ne lépp moo mooma liin ma jëm nii su ma ci amee ndam damay sant sunu borom su ma ci amul it damay dama koy sant ndax ndax jaam rek la comme la waaja waxoon ca bind ba Cheikh Ahmad Badawi ca Tànta dafa bind benn xale bu wax ne yàlla jaamu mën a ndax dama bëgg dem aljana mu ne yàlla jaamu mën a ndax dama ragal dem safara dama lay jaamu ndax sa jaam la te jaam jaamu boromam rek moo ko war donc tamit ci fànn boobu lañu ñu taxawee bi nga xamante ne nag mooy cëslaayu projet bi mooy la stabilité sociale imam stabilité sociale mooy jàmm ci réew mi sori bépp fitna loolu nag bokk na ci suñu credo bokk na ci suñu aada bokk na tamit li ñu diine islam wan ndax dama jàng tam ci benn téere bu ñuy wax al mustatraf ñu koy bind ci yonent bi dans le douzième siècle ñu wax ne bi nga xamante ni sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dellu si waa màkk bi ñu dajee gis li mu àndal ci mbooloo dañoo waxtaan seen biir benn waay bu am xel daan leen wax ni kii génnoon fii ak jikko yu tedd ya mu génne woon su dellu see it ak lu ñu ko mën a def fii jikko yu tedd yooyu la fi duggaate ma def ci sax taalif bi ma nekkee ci kaso bi ma wax ko sa del si màkk fay na nakar nga mënoon a fayantoo wëlbatiku jéggale lii la tax ñu sopp la foofu lay daanelee wax ji ne la projet bii projet bi dañ ko daan teg ci yar ci teggin bëgg nañu Macky Sall mu jeexal ci réew mi def na ñaari mandat ñoo ko dénkoon ñu ci ëpp ci sénégalais yi ne nañ ko delloo ñu suñu yëf ci njekk ak teranga mu war leen ko delloo it ci njekk ak teraanga képp koo xamante ne yaa ngi koy woo di ko wax nekk ñëwal yaa fi sës sës amu fi ndax miir ba war sës sori na li fi des mooy la doonoon ci réew mi ba dem jotee mu dem Abdou Diouf doon ko ba dem jotee en 2000 mu dem Abdoulaye Wade dafa ne woon yokkal leen ma sax deux ans ma jeexal samay projet sénégalais yi ne ko ñaar la ñu seqoon ak yow may nañu la ko ngal la ngal la yéen ñii féetewoo ñaan jàmm ji ñu bëgg ci réew mi mooy ki nekk def ñaar moom itamit mu dem ci njekk ak teraanga ñeneen ñi sénégalais ñëw ni ko constitution bi waxee ñëw eggale liggéey bii mu tàmbalee donte man maa ngi jàpp ne c'est le projet colonial moom moo nekk di dox ni ba tey parce que quand on nous parle que dinañu restaurer le train normal dama wax ne la France veut toujours asphyxier l'envol économique du Sénégal quand on parle toujours de TER mooy euh, bus yooyu di dox noonu BRT ma wax ne te am na leen lu gën loolu mooy le TGV buy relier nga mun a dem jóge fii tey reeree ji Ziguinchor wëlbatiku le lendemain nga ñëw fii ci Saint-Louis ndekkee fi TGV moo ko mën te mooy gën a rattaxal suñu koomu réew mënoon naa bàyyi ko foofu imam daal dina wax tuuti ci sport ndaxte bokk na aussi ci li nga xamante ne ay mandarga yi nga xam mooy moo mooy république dama dem ci Fuladu fee ca Kolda ma gis benn mag buy sol caaye bu gàtt yor benn flûte ay doomam wër ko ñu def yëfi yëfi yëfi cosaan waaye xale yi dama xool ne su waa yi defee flûte bi mbib bi xale yi dañuy def acrobatie treize fois ñu taxaw ma xool Jeux olympiques mais xale russe yi neuf fois la ñuy def acrobatie suñu defee dixième fois dañuy daanu ma wax ni nag jot nañu am centre de repérage de talent xale yu mel noonu ak xale yiy dox ay 60 kilomètres par jour ci jàngi war nañ leen jël ñii ci marathon ñii ci gymnastique pour que mu gën a yaatal nekk lii nga xamante ne mooy république ak cëslaayam moo tax may bind jamono ji le soft power soft power mooy comment imposer le Sénégal et son économie sa culture naka lañ koy imposer àdduna bi ba ñëpp bàyyi xel ci Sénégal yomb na maa ngi koy bind jamono ji pour ko connecter Sénégal ci àdduna bi yëpp lii lay daanelee wax bi di sàkku seen ñaan nag ci projet yii ñu bëgg a yëkkati suñu réew di leen ñaan aussi yàlla yàggal seen taxawaay fii ñu dugg bërëbu yaakaar la yàlla suñu yaakaar daal di fi gën a dëgëre ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn bis foofu lay daanele wax ji imam ñu wax Kocc Barma ndax bokk na man tamit ci ñi nga xamante ne am na lu ñu ko tuddee ci projet bi kër Kocc pour xale yi seeni suk suqaliku ci réew mi Kocc dafa toog benn bis wax mbooloo mi ne ku ma yónni ma yónni la ak koo mën a doon mbooloo mi rocceeku am ñu dem ca buur ne ko kocc nee na ko ku ko yónni mu yónni la ak koo mën a doon mu ne est-ce que boole na ma ci ñu ne waa nee na yow sax yaa ngi ci biir buur daal di sol mantoom ne nañu départ uti kocc danaa ko yónni maa ngi avertir su ma ko yónnee mu dem mu ñëw te yónniwu ma danaa tàqale boppam ak baatam ñu dem wax kocc gaaw kocc de bëgg naa waaye la ma waxoon laa waxaat ku ma yónni ma yónni la ñu indi buur egsi jox fas coach ak benn laar ne ko demal bërëb sàngam doxal ma fa nangam te ñëw soo ñëwee ma xool li nga wax coach bu muy yéeg mu daaneel laar gi ne buur jottali ma buur jottali ko mu dem bi mu demee ba dellu si ñu ne coach tey lay dee bi mu ñëwee ba egsi ñu ne coach léegi yónnil buur mu ne maa ko njëkk yónni kat ndax ba may dem naar naar ga waddoon na kat te moom moo ma ko jox waaw foofu lay tëjee wax ci imam alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf jërëjëf Sarr jërëjëf Sarr kon waaye loolu waxin la rek doo suñu gan. Uh-huh, uh-huh. tur yi fi tuddalee ñu ne ñoom benn lañu. Uh-huh. ànd tamit lislaam ñëpp ay mbokk lañu. yàlla bi muy wax waxul innamal gendar wala arab innamal muminuuna ixwatu fa aslihu bayna ñu kontaan si woon na ba nu sariwe Omar <coughs> mais damay tënk kàddu gi rek na wax ju bare ji xayru kalaamu maa wa dalla bu gàttee te tegu si yoon moo gën uh-huh. ki yàlla yénni woon sallallahu wa sallam nga doon ko waxal ba la si fekk uh-huh. kooku la yàlla uh-huh. ngeen ko toppee taa ngeen jub moom la yàlla wax ni wa maa ateekum wa rasulu fa xusu lu indi na ngeen moom la yàlla wax ni man utiyu rasul faqat ata allah ku ko topp ku nii man nga topp àgg naa moom ba sax nii su ngeen bëggee ma bëgg leen rek bëgg leen waaye oh, in kuntum tuhibbuuna allah fattabi'uuni yuhbibkum allah wa yaxfir lakum yàlla na ko yàlla defal amin amin te waajo yàlla nee na wa maa yantiqu anil hawaa oh, oh. waxtu baa nekk kon ñaan gi noo sàkk doona koy ñaanal dañ la koy ñaanal ñaanal ko suñu bopp ñaanal ko bépp jullit oh, oh. li ñu gën bëgg mooy réew mii oh, jàmm rek lañ fiy ñaan képp ko taxaw nga indi jàmm yal na la yàlla jox amiin jàmm rek lañ ak ku man di yor réew mi jàmm rek la ñuy ñaan te bis bu ne alxuraan dafa wax ni huwa fii saanin bis bu am na la war te ñun ñii kenn xamul ak ñeneen ñee wax kenn xamul li xew ëllëg coupe wane na ko coupe du monde bi wane na ko oh. ku si waxoon ku ne oh. yàlla wan na ëllëg man maa ko xam oh. wa maa tadri nafsun maa saa taktibu xaddan wa maa tadri nafsun bi ay ardi tamut xam nga moo tax alxuraan dara ko war jàng te gëm ko gis nga boo ñëwee si suuratu suara saaru waykat yooyu yàllaa ngi wax ni wa suara yët boo mun xaawun ma koy ma koy sëmbantal rek am na fu ma xam ne yulquuna sama wa aksaruhum kaasibuun si nga njabarkat yooyu ak waxkat yooyu ñu ñoo wax ci coupe du monde li ñoo gis nañu ko wala digtal na leen ko waaye yàlla moo feeñ foofu moo tax mu ne sama danaa leen jox ay xabaar waaye wa aksaruhum li indi kaasibuun dañu fekk njabarkat bu indi leen téeméeri xabaar benn nekk dëgg estop yi dara du si dëgg na ko innahu mafatihul xayb laa illa huwa yàlla moo xam kumpa kon nag yàlla mi xam kumpa nu ngee ñaan li gën si ñun gën ci suñu réew yàlla ñu ko yàlla defal amiin te waa jooju nee na dogalu yàlla bu mu dogal kenn ku ne am na lu mu dogal ci ñun ëllëg bu dee bu baax yàlla ñu ko fekke uh-huh. mais bu dee dogal bu ñaaw ba moom laa waxoon kullu yawmin huwa fi sha'nin dogal boobu ñaan nag moo ko fi mën jëli uh-huh. laa turaddu xadaa allah illa du'a lu uh-huh. yàlla dogal moo dogal ba mu baaxul ñaan kese nga fa mën jëli du ma sàmba du man dem kenn mënul kenn dara kon noonu ñu koy tàllal loxo yàlla subhaanahu wa taala suñu yéene ak seen yéene mooy réew mi nu bok yal na ko yàlla jagal. amiin képp ko am nga yéene defar ko te mu gën si ñun yal na ko yàlla teg. amiin amiin yàlla mën na ko. na ko yàlla defal amiin amiin di la ñaanal di ñaanal tam mbooloo mi nga àndal. amiin jërëjëf ndax ku fàttaliku nit ku ne jox nga ko cër. Omar ko tënk jox ngeen nu cër jox ngeen baraaj bi cër. kon yal na leen yàlla jox cër maa ngi sàkku lu def benn fatiha gannaaw bu mutuloo seytaane bu pare bu ñu ñëwee si iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'iin ñu baam ko ñetti yoon ihdina siraatal mustaqiim ñu آمين كل شيء ملك لله عز وجل وكل ذي هسة فقال به الله وكل ذي قوة فالضعيف عند الله وكل جبار فالسخير عند الله وكل سالم لا معيس له من الله يا أهل لقار كتاب عزاه ويا أسدة من الجن والإنس والشياطين ولا فارية متمردين خاتم سليمان بن داود عليه السلام على أفواهكم وعزيم موسى عليه السلام بين أكتابكم وخيركم بين أعينكم وسركم تحت أقدامكم سبحان من جم البحر بكلماته سبحان من أطفأ النار إبراهيم عليه السلام بحكمته كل شيء لعظمته أخبر ولا تخف نجوت من القوم الظالمين لا تخف إنك أنت من الآمنين لا تخاف دركا ولا تخشاه لا تر إنك أنت الأعلى لا تر فإني معكم أسمع وأرى لا أخاف لدي المرسلين سلام قولا من رب رحيم سلام على نوح في العالمين كذلك نجزي المحسنين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين سلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نذيرا والله من ورائهم معيت بل هو قرآن مجيد في اللوح المحفوظ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم إني أسألك الهدى والتقى والحفاظ والغنى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخر وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بركة القرآن الكريم آمين آمين بركات محمد صلى الله عليه وسلم آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين السلام عليكم السلام عليكم bëgguma noonu ñu kaa doxale surtout nag béréb bu mel nii ay béréb bu fi ay nit bokkee nekk nañuy waxante xàq bi rabbikum hmm. kii dafa di doomu jullit dëkk si dëkk bi te am loo xam ne nattu la nattoo di kerkeraani awliyaayi ku weddi laajal xayrul anbiyaayi nattu si la yàlla di defaral euh, jaamam nattu boobu ko yàlla euh, tegoon moom moom mu nekk doomu jullit mu am ci biir natt bi mu am lu mu def te kan mooy suñu idol muy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mu mën ci def def si bind ñun bundee ay jullit bundee ay jullit man laa de man jullit laa xaqan man jullit laa gëm naa yàlla wóolu naa waaye nag gëm naa yonent yi mu kii dee ak dekk ak téere yi ak malaayika yi gëm naa ko waaye li ma mën wax de fii laa ko waxee man la engage <coughs> da nga bëgg doon ëllëg njiitu réew mi man de ànd naa ak yow tey fii ànd naa ak yow mosuma ko wax kenn mosuma ko wax kenn ay ànd naa ak yow li wajjilaahi nag ngir rek li nga xam ne wax nga ko si yonent bi sallallahu alayhi wa nga di doomu jullit wax te li nga wax ñu digg ko jullit nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax jomm na ci moom buy fen te yàlla gëmmul nelawul te xam naa ne yow mii doo fenkat ndax ki jur ki la jur jommoon na ci moom mu kaa ndax xam nan ko ndax digg nan ko te fierté la woon tam si ñun kon nag tey bu fekkee ne moo lu jur nga nekk bu xeefalu dëkk bi man sama kalaas yi duñ la bàyyi rek nga daal di jóg noonu nu ñaan rek affaire mu dem yal na yàlla nangu ñaan yëpp waaye li nga xam ne nag moo daloon Cheikhul Khadim si buggee yàlla ak yonentam ba moom mu génn téye drapeau bi damay ñaan yàlla li nga xam ne moo ko yoreel boppam te nga wax ka léegi mooy fal di follee bu fekkee ne yaa gën yàlla na yàlla fal la te yàlla sàmm la sa xel te jubala la sa làmmiñ ndax li nga waxee nii ni nga waxee ni foo ko waxee si ay jullit bu dee ay dëgg-dëgg jullit daan dëggal na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon aboubakirin sadiq lu ñuy wax ni sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ni sadaqta ya rasulallah man sadaqta laa lay wax yow waaw sadaqta lan Cheikh Alassane Sène man da laa tey fii laa fii jaayante naag yow ci si li wajjillaahi nag waaw ndax li nga wax ma dégg ndax jullit bu wax di jógee ci moom dal ci nopp jullit àgg ci xolam moom war nga ci ndax yàlla laa ko seedeel wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu